بصرف المسيات كيما تقود سمام للرسيات أدل إذا ازداد قلبي أذن بهجتها أعوذ بالله من ميل لغير رضا ومن سدودي عما سن أو فرضا بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا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 mooy nuyoo bi tàmbalee ci jàmm te jeexee ci barke te tëggoo baat yooyu ma tudd muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. suñu nuyoo yooyu suñu ziyaara yooyu ñoo ngi ciy jiital borom nga neel a cheikh Mouhamadul Muntaqa buñ cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal sunu borom tabaraka wa taala mu dolli ko wér waaye dolli ko kattan waaye bàyyi ko akum xelam ba lim naa la liggéeyal yàlla waaye naal koo liggéeyal Serigne Touba ñu ngi ñaan sunu borom kattanal ko ba mottali ko incha allahu taala. comme ni ko sëñ bokk sëñ moor xam sa diine di waxee rek nay naal di yeggale tey naalaat di yeggalewaat na sax ci naal ak di sottal ñun ñu koy seere noonu lañ koy ñaanalee xalifa bu tedd ba nga xam ne moo nekk fa Tiwaawoon amee jataayu xadra malikiya a Seex Aboubacar Si Mansour suñu way jur ñoo koy ziyaara bu baax a baax di ko ñaanal moom suñu borom tabaraka wa taala dolli ko kattan ba mottali mboolem ay naalam ci lislaam noonu lañ koy ñaanalee xalifa bu tedd ba nga xam ne moo nekk fa Kaolack Baay Cheikh Tidiane Niass xalifa maam Abdullahi Niass waaye noonu lañ koy ñaanalee Cheikh Mahi xalifa Cheikh Ibrahim Niass waaye noonu lañ koy ñaanalee Baye Assane Seck xalifa Canaba maam Amari Ndak Seck waaye noonu lañ koy ñaanalee xalifa Ndiassane waaye noonu lañ koy ñaanalee maam Thierno Bachir mi nga xam ne moo amee jataay maam Cheikh Omar waaye noonu lañ koy ñaanalee mboolem xalifa sénéro yëpp mboolem umma islami bi yëpp wuñ kenn te bàyyiwuñ fenn te bay bàyyiwuñ ñenn seen télé Rewmi TV baaxoo leenoo indil seen émission bu mag bi di ñuy wax keppaaru mag ñi mboolem fu waay mën a nekk di ko topp ci 97 euh, point 5 ci rajo bi wala nga koy rob nga koy topp ci réew mi TV mu ngi dox ci TNT bi canal 108 wala foo ko mën a toppee rek wala ci YouTube bi réew mi officiel fu ko waay mën a toppee rek ñoo ngi lay jottali suñuy kàddu yu nuyoo ak suñuy ziyaara di ñaan suñu kàddu fekk la ci jàmm. xam ngeen ne seen émission keppaaru mag ñi niñ ko baaxoo defee dimanche bu jot 22h jàpp minuit lay am fii ci seen télé réew mi TV ngeen baaxu ko ànd ak seen mbokk sëñ Baara Mbàkke ni mbaaxoo doxee saa yu ne buñ fi teewee fàttaliku kenn ci suñu mag ñi ñan ñooy mag ñi mooy ñi nga xam ne bi yàlla yónnee ci bi aleyhi salaatu wasalaam jox ko liggéey bu rëy boobu te mooy lislaam mu di ko tasaare keroog bi nga xamante ni yàlla dogal na euh, suñu borom wàccel na ko nee na ko al yawma akmaltu lakum diinakum aleyhi salaatu wasalaam lii la waxoon nee na balligu anni walaw aaya yàlla wàcce na ma waaye yéen sama xeet man teg naa leen la ma yàlla tegoon mooy li ma yàlla yónni woon la ma ca yàlla santoon def naa ko ci yéen bay leen ci seen waar mooy jottali leen ma li ma yàlla yónni woon donte benn aaya la donte benn baat la donte benn phrase la donte benn moow la waaye saxaaba yi liggéey ci liggéey bu rëy rëy rëy rëy saxaaba yi taabian yi ci taabian taabian yi liggéey ci waaye ba ci nag suñu réew mii nga xam ne moom la ñu xam muy Sénégal wala suñu dénd bii ñu xam muy Afrique yàlla baaxee ñu ay mag yoo xam ne dañ cee liggéey liggéey bu rëy rëy rëy boo xam ne ginnaaw yàlla ñun buñ juddoo doon ay jullit ñoom ci ñoom la ko yàlla jaarale ndax ñoom ñoo jël diine ji waaye jaarale ko foo xam ne fu mucc ayib la ba ñun tey bu ñu dikkee mën a xam lislaam waaye man a xam sunna mën a xam jaar-jaar yonent bi aleyhi salaatu waaye mën a xam it fan la tegoon tànkam suñu mag ñooñu ñu defal loolu ñoom la ñuy fàttaliku ci émission bii benn ñu tudd seeni tur waxtaane seeni jaar-jaar wala ñu andiwaat dara ci seenum njàngal nafaraat ko ci ñaari format yooyu lay baaxoo di amee tey nag incha allahu taala ñu jukkiwaat kenn ci mag ñu nga xam ne am na liggéey bu rëy rëy rëy boo xam ne liggéeyal nañ ko lislaam xam naa bu ñu tuddee turam dana yomba xam waaye bu ñu waxtaanee jaar-jaaram danañ xam ne ndekete kat kii dayo bii la ko yàlla joxoon ci diine ji waaye liggéey bu rëy bii nga xam ne moom la bayoon waaram ci li yoon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam digle woon ñu war ci ànd ak kan suñ mbokk sëriñ Xasan Mbàkke sëriñ Xasan Mbàkke bàyyi ko ci buntu kër borom Cham bu borom Cham magi mag maam moorum soxna jaara mi nga xam ne mook sëñ Tubaa ñoo bokk way jur wu góor ak jigéen ci noonu la ñuy jaaree di ziyaari ab xalifaam Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké di ko ñaanal moom Serigne Ismaïl moom maam borom Cham di ko ñaanal sunu borom guddal fanam te may ko wér te mboolem ay naalam ci kër gi suñu borom mottalil ko ko ak mbooleem mbagam ya nga xam ne ñoom la ñoom la wuutu ku ci mel ne Serigne Abdoulahi Mahmoud wala Serigne Abdoulahi yàllaay buur ak seeni bàyyi ya nga xam ne ñoom ñoom ñoom la ñu wuutu yàlla na yàlla dolli ngërëmam ak leer ci ñoom Serigne Assane xam naa dañ lay dalal ci kër gi rek incha allahu taala nga daal di nuyoo su ko defee ñu daal di door a door liggéey bi incha allahu taala auzu billahi samil alim min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai wa mawlana muhammadin al makin wa alihi wa sahabatihi lahum bi ihsani ila yawmi rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wàccal kalaami rashidan wa murshida ginnaaw sant yàlla julli ci sangu-sang yi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant seel xadim sunu yaakaar teeg ëllëg di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te ànd ak wér balim naa la sëriñ Tuubaa mu def ko ko sogoom ànd ko mboolem taalibe yëpp noonu lañ koy ñaaneel sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke xalifab Cheikh Mahamad moom soxna jaara suñ borom dëbb ko kàttan ak wér balim naa ci ëtt ba mu def ko te ànd ak sogoom ànd ko taalibe yi ak njaboot gi yëpp di ko ñaanal mbooleem suñu xalifa seen roo yi nga xam ne ñi ngi ci biir réew mi toogee seen jataayu waajur yi ak seen jataayu maam yi di liggéey liggéey ba am solo ci Sénégal suñu borom defal leen jàmm ak wér ñu tal ba mission bi ñu gàccu mu mission bi l'islam fañ ko bëgg a yeggale ñu yeggale ko fa bi jaay si digu jot sallallahu alayhi wa sallam daa mbégte ma yaatoo yaatu nag ci jataay bi keppaaru mag ñi eh, Cheikh Amadou Bara ñi lay nuyu bu baax a baax di jaarale suñu nuyoo ci sa jëmm ci mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne dañuy bàyyi xel keppaaru mag ñi di nuyu mbooleem koo xam ne jamono bi yaa ngi ñuy bàyyi xel ak foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew salaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullah Seydina Al assan sëñ Assane Mbacke ñoo ngi lay mm-hmm. delloo nuyoo bi ak di delloo ziar bi mm-hmm. nuyoo bi jot na jotale na. Mm-hmm. di xanaa it ni ñu koy waxee rek waxtu wu ci ne di ñaanal it. kilifa gi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala dogal na moo nekk ci suñu kanamu lë ci liggéey bi muy alxaaji Mbagnick Diop liggéey bu rëy bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal lislaam waaye mi ngi koy liggéeyal it société bi nga xam ne ci la ko yàlla boole di ci bay waaram kër gii nga xam ne mooy réew mi TV ñu ak ay bànqaasam hmm. ñu di ci di ci jotali loo xam ne mooy jëriñ askan wi hmm. di sàkku it waxtu wu ci ne ñu di ko ñaanal bu baax a baax a baax hmm. suñu borom dolli ko kàttan waaye dolli ay xéewalam euh, li ko dalee ci moom kilifa gi jaar ci alxaaji Moustapha mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ki ci gën a ba ci man mi ci gën a suufee ñoom ñëpp yi ñoo ngi leen di sàkkul ñaan sëriñ Xasan euh, sëriñ Xasan Mbàkke moom sëriñ Saam Xastuloo moom sëriñ Seex Astawaalo moom maam Moor Jaara borom Saam kon kenn la ci sëti maam Mor Jaara borom saam yi mhm. teew ci turu kër gi mhm. waaye ci turu yi daayira al i'tisam bi hablillahi wal firaaqu an tafarruqi wal malaahi mhm. bi nga xam ne moo lëkkale mboolem sëti maam Mor Jaara borom saam waaye teew fii ci turu commission bi nga xam ne ñoo amee liggéeyu màggal gi te sëriñ Habibu Mbàkke moom sëriñ Moodu Seex moom sëñ Baara Khourédia maam Mor Jaara borom Saam jiite ko. Mm-hmm. sëñ Asan tey ñu dikk bëgg a waxtaani magi mag. Mm-hmm. magi mag borom Saam. Mm-hmm. mooy ki nga xam ne moom sëñ Tuubaa ñoo bokk lépp. xam naa alayhi salaatu wasalaam suñu borom bi mu ko yónnee ci kaw suuf. daf koo waajal. mooy daf ko wutal ay maam yoo xam ne kenn du leen jam. maanaam amul maamam jooy tudd di ca wax naka su dul noonu loolu wàccaay suñu borom la. ne suñu borom tabaaraka wa taala ak mbaaxam romb na ci bu ko neexoon mu indi ko moom sël du ko boolee kenn du am benn su ko neexoon nii mu indi ko du am ñaari waajur mhm. waaye su ko neexoon it mu indi ko ci ay maamam moom suñu borom mu jëfandikoo coobareem te du ko tey set mhm. waaye nag maanaam cosaan la ci mbaax ay waajur yu baax maanaam ay waajur yi ci baax ay waajur yu baax day dimbali nit ki ci ngir mu mën a baax mhm. looloo tax alayhi salaatu wasalaam sunu borom defal ko wàcc ay wutal noonu waaye it maam borom saam mii nga xam ne moom la ñuy waxtaanee muy maam Mor Jaara naa ne it foofu la ko suñu borom jaarale kon buñ bëggoon a xam moom fan la jaar ci ay jur Mm-hmm. ñan ñoo ko meññ ci ay wayjur ak kañ la ganee jamono mm-hmm. ak fan la gane jamono jërëjëf sama Lamine Bara di la comme noonu ko waxee rek jaarale sama nuyu ci sa jëmm mu àgg ci borom kër gi di Mbagnick Diop ak borom personnel bi nga xam ne ñu ngi fi liggéeyee di nuyu baax sëriñ Abibu moom Serigne Modou Cheikh mi nga xam ne moo jiite comité bi. Mm-hmm. waaye di nuyu bu baax euh, Serigne Makhtar mi nga xam ne moom lañ dégg culture culture et communication mu jiite ko di ci liggéey léegi bu am solo. Mm-hmm. noonu nga ne ñoo bokk ci daayira Ihsan bépp rek. Mm-hmm. di seeti Maam Mor Jaar borom Sàmm. noonu nga ko waxee nag euh, yonent bi sallallahu dafa ñoo jàngaloon ne. inda sikru saalihina euh, tansilu rahma. inda mag ñu mel ne Cheikh Mamadou moom soxna jaara di leen mm-hmm. waxtaane mm-hmm. jataay boobu rek day faray bàkkaar waaye mm-hmm. jataay boobu yàlla day wàcc ay malaayka yërmande ñuy sàkkul yërmande ñu fekkee boobu la jataay tax nag di koo xam ne it maanaam ab taxawaayam ak cëram. Mm-hmm. am na dayo am dayo goo xam ne boo ko tuddee rek. Mm-hmm. même ñu ko xamut ñi nga xam ne xamuñ Maamoor Jaara. Mm-hmm. turu Maamoor Jaara daf leen neex te xamuñ ci moom dara. dëgg la baatu Maamoor Jaara bi rek lañ xam. Euh, ngir lan taxawaay bam sol bi nga xam ne. Euh, taxaw na ko ak originalité gi nga xam ne. yàlla defal na ko. muy ku yàgg ci mbaax ba mbaax wuy si ko. ni ko laajee nag mooy euh, borom saam boo ko bëggee xam. da ngay wax Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammadul Xayri. ñu gën koo xam ci maharam doomi Maam Mor Anta Sali la ñu gën ko wax si ñu gën ko xam si Mbàkke Mor Anta Sali mhm. xaadi yi Maam Mor Anta Sali ku ne mhm. xam na ko ci biir réew mi ci taxawaayam mhm. waaye itam euh, Maam Balla Haysa moo jur Maam Mor Anta Sali Maam Balla Haysa mooy caatu Mahram waaye Maam ko jur ñu gën ko xam ci Muhammadul Xayri Mahram Muhammadul waaw la Seex Muhammadul Faadal daan wax naan Mahram boo may xaddi naanu Mbàkke mooy suñu xaddi naan ndeysaan waaw foofu bu bàggee <laughs> daanaka loo gën a jàll rek daal di daal di génn réew mi noonu ngay toppee itam nag bam bam yóbbu la Euh, Murtani ca hmm. euh, xeet wa ñuy wax Mouli àlla naa la hmm. nga xam ne ay sorif lañ ay surafa lañ hmm. boo ñëwee ci wàllu ko juróom ma Buso Awa Mbaay jur ko moom itam noonu la lay toppe boo ko toppoon noonu ngay dem ba ci Sayyiduna Hasan mi nga xam ne mooy euh, doomi Fatima di Sayyidu yonentu sallallahu da nga ci dégg moom ci ñaari wàllam yëpp ay ay ay sëriñ la ci waaye doyoon na sëkk nag ñu bëgg koo xam ne ci réew mi nga ne moo ko Seex moo ko Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasul ñoo bokk ñaari way ji ñaari way jur yëpp boo xam ne taarif lay daal bu jigéen bu jigéen ndeysaan moo tax ñaan ko Mamour kon da ngay dégg ne kon moom mm-hmm. lu walaabul ci Serigne Touba ci mbokk rek walaabul na ci moom ndeysaan Mamour Diarra dëgg la dëgg la ndeysaan muy koo xam ne itam euh, alxuraan loolu mu junjoon ne wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbi daal nay bi ci biir ndax mm. euh, boo ne borom saam ku baax la ku mhm. bëgg baax la ku def nii la ku taxaw alxuraan la mhm. laaxar ba ki ko xam dëgg laaxar ba la lay wax ndax mhm. danaan loolu yéeme wut boo ne woon leneen ci moom loolu la yéeme waaye nag yàlla dogal nag eh, ginnaaw bi mu doonee ki mu doon ci eh, taxawaay yu am solo itam ku ne xam na ne eh, way jur yu maam ya am na baas bu am solo boo xam ne ñoom lañ gënoon a fonk mooy éducation de base li nga xam ne ki nit ki lii la war kañ la gane kañ la gane àdduna ak fan la Euh, Cheikh Mouhamad moom soxna Jaara mi ngi gane àdduna Mbàkke Bawal. Mbàkke Bawal 1849. 1849 1849. kon ci mag ñi la. ci mag ñi la moom moom moom ci magi réew mi la 1849. ci mhm. Mbàkke Bawal foofu la. Euh, gane jamono gane jamono. Mhm. Mhm. su ko defee nag. Euh, noonu ñu ko xamee rek. ak gane jamono moom. bu xasee am. ñu tudde ko faaw ñu wutal ko tur. ñu tudde ko Seydina Muhammad. alayhi la ndax ki leen daan jàngal ñu ko daan wax. Ahmad Bamba Sall. Cheikh Ahmad Bamba Sall waaw dafa amoon ku ñuy wax. Mhm. man euh, man du mémoire Syll. sëñ man du mémoire Syll nekkoon koo xam ne itam. moo ma suñu ànd sali ay xarit lañu woon. daan mhm. bokk di jàng ci Amadou Bamba Sall moom. Mhm, di naan réew mi baax yàgg na fi. Amadou Bamba Sall moom moo leen waxoon ne yéen seen ñaari jëmm ñi borom jamono dama cee gis boroom jamono. ndeysaan. daal ne leen ku ci am tuut tànk. Mhm. bu njëkk na ko tudd Seydina Ahmed. alayhi salaatu wa salaam waaye seen ñaareelu tuut tànk na nga ko tudde na ngeen ma ko tuddee ndeysaan. moo tax boo demee ci Amadou Ndoumbe Marsilom ab taawam Mouhamad la tudd. Mouhamad mhm. waaw. Mhm. boo ñëwee daasim turam. mooy sëñ Tayba. sëñ Tayba Mouhamad waaw boo ñëwee <laughs> euh, euh, di tudd Ahmadou Bamba Sall. ndeysaan ndeysaan moo tax si euh, Simon Salimi doomam ji njëkk mu tudd ko Seydina Mouhamed. alayhi salaatu wa doom itam mu tudd ko Ahmadou Bamba Sall. baarakallah incha allah Xaadimu Rasuul mi ñu nekk. baarakallah baarakallah sëñ Assane daa mel ni xam naa ne xam léegi leer na. Mhm. xam nañ ne ndekete kon sëñ Mor Jaara mi ñuy waxtaane ci réew mi la dëkk. Mhm. réew mi la dëkk. Mhm. la maam Masamba waxoon soxna Jaara asliyatun watanan. sarifatun xasab nasaban. karimatun xasaban. tafdiluha baana. baana jooju day valable ci moom. <laughs> dëgg la wér na mooy ci réew mi la dëkk. bu dee ci wàllu ay waajuram shérif la. su fekkente ni ci wàllu ay jikkoom gor la. ay ngëneelam feeñ na mm-hmm. asliyatun watanan sarifatun nasaban mm-hmm. karimatun hasaban tafdiluha baada mm-hmm. macha allah loolu la ñu waxoon woy juróom kon xamee nañ ko ci ci bi ci li nga li nga ñu leeral nii rek xam nañ ci ne moom ab sénégalais la ci réew mi la dëkk ndax fi nga tudd muy bawal ab dëkk la ci biir sénégal buñ xam nag ndax réew mi moom daanaka tund yi lañ fi xam tundu bawal jolof njàmbur siin ak yu demee noonu maanaam bu ñuy lim lim tund yi ñu fi xam dañ ciy boole tudd bala mm-hmm. bawal mm-hmm. feeñ na it ci biir wax ji ni mm-hmm. bawal ci liñ xam ci cosaan maam maharam mi ngay wax neen moom la sëñ Fallou waxoon ne mooy suñu àddinaan feeñ na it siiw na ci histoire ñu ne maam maharam la ko buur ba amari ndeela mayoon mu sancaloon fa taawam ahmadou farimata moom na ko fanweeri at faatu mu sancal fa rakk ja muy mm-hmm. Ibrahima Awa Niang mm-hmm. moo sañcoon ca dimbu ga mooy fi ñuy wax Mbàkke dimbu mm-hmm. moom it fanweeri at la fa dëkk faatu ginnaaw bi la fa indi Mamballa Aysa mii Mamballa Aysa vingt mii jur Maam Jaara eh, yàlla dogal bi ñu ko fa reyee moom ca la jógee Mbàkke gàddaay demoon sañ ngay si kon bi ngi ne Maam Jaara Mbàkke la ganee jamono ci at yii 1849. Mm. kon biir Mbacke lay gën sax na ci histoire ne Mbacke la mën a gën a jamono ndax jamono booba maamam ak i waajuram ñoom Mbacke lañ nekkoon booba Mbacke lañ nekkoon waaye ki ko ñaar ñi ko meññ it mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp ñuy ay shurafa mm-hmm. fa famille ale moo dee nal la mm-hmm. ñoom ñi ngi dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax gollare gollare ci wetu Fuuta dëkkoon nañ it fu ñuy wax Mbàkke Jolof kon yi ngay wax ni yëpp yu histoire saxal la damay dëgg li ngay wax ni yu histoire moom ay maamam daal mbàkke la ganee jamono waaye ay mbaa ay maamam ay surafa lañ mhm. mooy diggante Murtani ak Fuuta ak Jolof mhm. fa lañ bàyyi ba ñëw bawal mu ganee fii jamono mhm. loolu kon di lu am solo am solo am solo am solo di lu sax ci histoire waaye tur wiñ ko tuddee tur ko tuddee alayhi salaatu wasalaam nee na xayrul asmaai maa maa aw xumida li gën ci yi mooy tur woo xam ne abdul wala wala muhammad wala mm-hmm. ahmad mm-hmm. maanaam mooy tur woo xam ne ci baatu obida la ba ko mm-hmm. maanaam luñ jaamal la wala luñ santal la mooy muhammad ahmad hamid mahmud wala yu ko niru wala abdullahi abdul qadir abdul muhaymin abdul jabbar abdu abdu abdu abdu abdu abdu nee na tur yi gën ci tur yi mooy li bàyyi ko ci abdu wala muhammad wala ahmad wala yu ko niru te bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam tudd moom moom moom la tudd. Mhm. mooy maa xumida. maa xumida Muhammad alayhi salaatu wa salaam Muhammad la tudd. Mhm. mim xaamim deel. Mhm. moom moom lañ ko tuddee. kon. macha allah ñi gën ci réew mi ñoo ko meññi. ñoo ko meññi waaye ki gën ci nit ñi lañ ko tuddee alayhi salaatu wa salaam. mu gane 1800 jamono 1849. waaye it muy lu am solo am solo am solo am solo mooy li nga wax ne réew mi mbaax yàgg na fi. mooy maam Ahmad Bamba Sall. siiw na ci histoire ñu ne bàyyi mm-hmm. fi njaboot. waaye ba tey ñu ngi koy tudd. kon ndekete tuddee nit doom ab secret la. Mm-hmm. ab secret ngi ci ndax danay tax ba tey ñu koy fàttaliku. Mm-hmm. sëriñ Ahmed Saxiir maam Ahmed Saxiir mi nga xam ne moo moom kokki. gis nga ba tey bàyyiwu fi doom ju góor doom ju ñuy wax. ay doomi xol la fi bàyyi waaye bàyyiwu fi doom yi. doom yi boppam. waaye teewul ba tey ñi ngi tudd ñu ngi koy tuddee ay daara di tudd aw turam. yàlla na yàlla loolu li ko waral mooy que ni ndekete kon bàyyi fi njaboot baax na waaye jëf joo xam ne bàyyi fi ay doomi xol it am na njariñ ndax maam Ahmad Bamba Sall doomi xol yi mu fi bàyyi muy ñoom Mamoor and Sali ak sëñ Ahmadu sëñ Ndumbe Marsil la mhm. ñooñi ñoo tax ba tey aw turam mi ngi fi des mhm. ndax tur yi ñu ko tuddee woon si Ahmad Bamba mii fu ñu ko tuddee xel dem ci Ahmad Bamba Sall mhm. yàlla na yàlla dolli leen ay leer te leen aw yiw kon mbaax googu nga xam ne ci la gane jamono mhm. way juróom tuddee ko alayhi salaatu wasalaam rakkam mu tuddee ko maam Ahmad Bamba Sall xam nañu ne 1849 la ganee jamono Mbàkke la ganee jamono waaye bii ab bi mu ganee jamono ci lan lañ nekkoon ak moom ci fan la jaar ci wàllu jàng ak lan la réalisé ci wàllu xam-xam jërëjëf suñ baara comme ni ko waxee li nga ne euh, réew mi mbaax yàgg na fi. Mhm. Cheikh Mamadou Diarra euh, fii ci réew mi la dëkk. Mhm. fi la fekk baax baax fekk ko fi. Mhm. ni ñu koy waxee. waaye dafa am histoire bu mu solo boo xam ne liñ naan dafa am euh, askan yoo xam ne njàmbaar yàgg na fa. boo xoolee maam Maharam mii nga xam ne mooy waajuram. daan jàng ci maam Masamba Thiam. moom moomu. Euh, mooy euh, Massamba Thiam moomu. Mm-hmm, mm-hmm. mooy maam yi. moog sëñ euh, kokki ñoo fa bokkoon nekk. merci <laughs> mooy mooy mooy mooy mm-hmm. mooy. mooy maam yi Ahmed eh, eh, Iriane Thiam Iriane Thiam waaw maam Ahmed ba mu fa nekkee moom daa dogoon way juróom bu jigéen ci Soxna Arab Ñang. way juróom bu góor xawoon na am dara. moom ci mag la jànge. moom maam bi mu fa ñëwee nag daa boole di jàng di tarbiyewu boole di jàng ba pare. di tarbiyewu yor kër gi. ndeysaan yor këru maam Massamba Thiam. ndeysaan bi mu ba maam Massamba Thiam war koo waa yeewi. dafa dajale njaboot gi ne na ngeen xam ne nag mhm. barkeb daara ji mhm. doomi Mbàkke ji yóbbaale na ko ndeysaan pënd <laughs> ba wéy na Mbàkke mu ñëw nag <laughs> mhm. dellu si kër way juróom waaye ci xew-xewi jamono ngir ngir ngir ngir gaawal xew-xewi jamono bi yàlla dogalee ñu rey mbokkum daaraam moomu di eh, Maam Saar ca Mbàkke Mbàkke guy ñetti sér guy ñetti sér <laughs> moom itam ñu mer. Mm-hmm. sëriñ sëpp mer daan ne. Mm-hmm. dañoo war a dem. Mm-hmm. dajeeg euh, Amady buur bi Amady Ndeela. Amady Ndeela dajeeg moom mu ne leen. ku ne xam na ne buur. xeex la baaxoo mooy mooy mooy mooy mooy aadaam. yéen nag doomi soxna ngeen. maanaam alxuraan mooy seen aada kon xeex du seen biir. dëgg la am na lu gën a yell loolu. lañ naan li suñu tubaab di naan. Euh, jàmbaar du xeex du xuloo day muñ ba am la bëgg. kon loolu. très important nit ñi di ko bàyyi xel wallaay ndeysaan wallaay ñëwee rek nga dellu gannaaw xool li mm-hmm. la yàlla jàngal mm-hmm. mu ñëw Mbàkke ne day mu ne nag biñ ko rayee ba ci déwén sa sëriñ si mm-hmm. ñu bëri xeex ak Amari Ngoone ñii mu ray leen ñii mu jàpp leen ñii ndeysaan moom mu ne nag dina jaale ji eh, Maam Lamine Sarr moomu ñu ne ko da rey. da lay def ni mu def nii dana ma rey dinaa dem. daal di fay agsi Maxime Mbacke. Hmm. Eh, jaale jaale si ko guy ñetti sër googu. Hmm. daa nee bi mu ñëwee ci Amari Ngoone. Hmm. Eh, avant mu ne ana Amari Ngoone ñu ne ko moom laa soxla woon ñu ne loo koy doyee mu ne. damaa ñëw war koo wax kàddu yu dëgg yoo xam ne na xam ne ma Lamine Thiam bi def ko dara. yaa ngi dégg. ñi mbooloo mi ànd ak Amari Ngoone ñoo ne ko ba tey boo de boo gisee buur bi te wax ko sa kàddu yi de doo dellu mu ne ko duma Mhm. saab ko ba gis ko amari ngooy ne ko damaa bëgg ñu ànd ba ca àll ba mhm. foo xam ne ci guy googu lañ daje woon sax ci guy ñetti seen googu lañ daje woon ah. mhm. moom moom ñoom ak yàlla kese mu ne damaa bëgg ñu waxtaan daa ne ma labin saar mii nga rey day na nga xam ne jaa jàmburub yàlla la woon boo xam ne alxuraan loolu liggéey tegoo ko ci yoon itam nee bi waxee loolu amari ngooy amari ngooy ne xinet daal di xalaat ne ana kan moo ko mën a wax dëgg gu mel kan moo ko ñemee wax gii dëgg la ilaha illallah deel nga xam ne da li naan ko ànd ak yàlla hmm. munu war doo tiit doo tiit doo tiit wallaay ndeysaan amari ngoone ndee la daal di toog ne dal xam nga buur yi dañuy bëyil pexe toog ba mu yàgg hmm. daal ne ko mu ne la hmm. ndax moom dafa desee dafa desee nii te wax ay waxam yoo xam ne moom def na erreur xam na def na xam naa ne jiw mu ne ko damaa bëgg nag yow ñu dëkk xoola personnalité bi mag ñaamoon la ilaha illallah buur mooy sàkku dëkk baarakallah mu a ko mënta nekk mm-hmm. ndax damaa jëm mag at yi bëri na mm-hmm. te damaa yor njaboot fa ma dëkk ndeysaan buur bi ne ko amoon ko ne ko loolu de moom daana ma jaaxal waaye bu ma sañoon day mm-hmm. dëkk ak yow wala nga tànnal ma kenn ci njaboot yi mu dëkk ak man ci la ko jox Ahmadou Farimata bi ci la maam Ahmadou Farimata sanc foofu sanc foofu ci Mbàkke am na solo am na solo am na solo da ngay xam ne kon moom ak nekkam Mbàkke euh, ci la ci circonstance la circonstance la waaw waaye dikkutoon ngir sànc fii am fii toolo lay demee noonu bi fa nekkee itam di jóge bu soobee Jolof di ñëw Mbàkke mhm. ci jaabante boobu la fa takk soxna suñuy wax mhm. euh, soxna Aysa Kan kan waaw soxna Aysa Kan mu nga xam ne menn benn doom la ci am muy Mam Balla Aysa Mam Balla Aysa moo doon caatu maaram moo doon caatu maaram waaw kon moo sabab nag nekk di ganee foofu jamono ko dëkk bu yàgg ci baax mhm, moom nag kon ci rawam ni ñu koy waxee mhm. wàllum njàngam mhm. jaar na eh, ci ku ñuy wax tafsir Mbàkke Ndumbe tafsir Mbàkke Ndumbe waaw nijaay nijaayam nijaay nijaayam mhm. Cheikh Mamadou Diarra moo ko eh, Mamadou Ansali moo ko tàmbali ko jox ko mu jàngal ko ab diir waaye dafa dellusiwaat nag ci Mamadou Ansali continué am jàngam wàll nañ ci loxo yi waajuram ci la jànge ba moo ko alxuraan ba tàmbali xam-xam lu sori ci la Maba Jaxu Ba dajale mag ñi ne leen eh, dama bëggoon ñu dem fële ca euh, Saalum. Mm-hmm. ngir xare boobu mu doon amal. mooy jihaad ji mboote woon. waaw ay cinquante huit soixante leen fee bàyyi gannaaw. Mm-hmm. su ko defee buur yi doxe leen gannaaw faagaagal leen. ndeysaan mu yóbbaa mu yóbbaale leen ba mu leen yóbbaale itam. Mm-hmm. wax nañ ne ci seenu nekk. Euh, ñu ngi nekkoon. Euh, Poroxaan ak Naawel. ak Naawel. diggante boobu nag. daana jóge ci Simansel di jàng ci ku ñuy wax Amadou Bamba Sall. Ahmadou Bamba Sall xam-xam moom it. ba mu ca jóge itam bi ñuy ñibbisi mu ànd ak sëñ bu soobee. mu nekk ak bu soobee. daal di jaar naawel. Mm-hmm. su ko defee sëñ Maodo Sali moom foofa la jógee ànd ak Lajour daal di ñëw fii ci euh, Kajoor. Mm-hmm. fi ñuy wax. Kajoor. Euh, mm-hmm. fi ñuy wax euh, moom moom mi ngi féete woon. Pataar Pataar. ci diggante boobu nag. wax nañu ne. sim soxna kii xaw naa magal. suñ bu soo suñ bu soo bi xaw naa magal tuuti. ci la ñibbi siwaat Mbàkke. xam naa ñuy wax naan. su ku tedd ki hmm. bi muy jógee bi muy jógee naawel naawel hmm. di ñëw hmm. moom moo sababoon moom mu ànd ak moom ñu bisi mbàkke bi mu ñu bisee mbàkke nag daa fekk suñ eh, suñ suñ busoo bi moom magal na suñ moom jaara mi daal di féete woo daara ja yor yor daara ja nga xam ne kon nag ci dégg ne kon eh, maanaam la ko la li nga xam ne ab taxawaay lu ba am solo boo xam ne xam na ko mooy teel naa mokk alxuraan lool ci ndaw ci diggante loxoy ay way juróom ba mu ci jógee itam mission bi nga xam ne hmm. moom la euh, suñ bu soobee yoroon nga xam ne ku ko xam hmm. xam ne jàngale rek ci la nekkoon bu nee ba nga ne mission am ci magal hmm. daa jël sim boole yor suñ Mor Anta Sali suñ bu soobee ci taxawaay waaye gàddul ko daaray alxuraan ji ak daaray xam ji am na solo ba mujj yàgg euh, ku ne xam na ne bi ñuy Mbàkke itam mujjoon na Euh, foofu moo nekkoon université bi nga xam ni. Hmm. bëri na ci mag ñoo xam ne bu ñu masaan ñëw ci suñ mbusoo bi di jàng si euh, xam-xam. Hmm. Euh, Cheikh Modou Diarra mii moo leen jàngal lool nag moo sabab. Hmm. sooy lire histoire bi suñ Maam Anta Sali jógee. Paatar ñëw Mbàkke Kajoor. wàcc fa bu liggéey. doo ci dégg turu. Mamour Diarra li ko sabab mooy mission ba am solo bi nga xam ne gàccoon nañ ko ko. mu doon ko liggéey ci suñ mbusoo mi nga xam ne. mooy nga mbusoo bi ak Maam Mor dañ doon ñaari mag. ñu doon ñaari mag ku ne mënta ñàkk ku ñu fee jëlee ko sëñ bu soobee mu féeteeg moom waaw ku baax ki féeteeg mhm. euh, ba ñëw paatar googu xam nga ne si fi la sëñ Mbàkke Anta wàccib eh, liggéey waaw 75 70 ñu denc ko mhm. njaañu njaga googu ndeysaan ñu continuer dem mhm. ndax fi ne loolu lu ci am solo la xaadima xaadi sëñ maam Anta Sali dafa daan wax naan Lat Joor daa sàkk woon ne ko damaa bëgg dëkk bu ma nekk nga nekk fa mm-hmm. mu xamal ko ne mm-hmm. man day loolu duma ko mën ndax damaa yor njaboot damaa nekk ci alxuraan mm-hmm. waaye man naa foo ne ma ma dandi la ay kilomètre nekk fa ndeysaan moo tax mu daan wax naan maak maak euh, lajjoor daal mhm. ñaari béj ji ñi nag lañ jegee nañ waaye duñu laale waaye duñu laale ndeysaan loolu am solo nit <laughs> am solo nga xam ne maanaam jegee gi ak buur ba ëpp da ko daan moytu da ko daan moytu waaw ah, da ngir yu bari bari ñi ko ko ndeysaan waaye tam mhm. loolu loolu la ko daan la ko daan leeral wallaay ku yoroon njaboot mhm. dëkk ak buur waroo kontar buur mhm. ndax sa njaboot day soxla buur loolu suñ jonn yàlla tey jii rek mhm. bind bu am solo la ñu war ko bàyyi xel kilifa mhm. du wan gannaaw buur waaye du ànd ak buur faw mu mu daarante digganteem ak buur dangaa indi sama xalaat yi lu sëñ Fallu waxoon daa am ci mag ñi ko xëy si ko sa xarit bi de démb tey ci suba dégg naa ko mu wax ci rajo sëñ ne ko sama xarit ban mu ne ko Senghor mu ne ko du sama xarit de mu ne ko Ambaki ak ni nga demee ñoom mu ne dee du sama xarit de daa yilif mbooloo ma yilif mbooloo mhm. ta mbooloo mi ma yilif maa ngi ñoom ci biir kilifteefam lañ nekk mhm. ñuy soxla ca moom muy soxla ci man ma nekk seen diggante macha allah loolu moo loolo moo moo <laughs> lu am solo am solo xikma la xikma <laughs> uh-huh. la ndax ñaar ñu seq penc mi uh-huh. suñ juwee rek juyee la penc mi kon ñoom ñaar war looloo sabab nag bi ñu nekkee Mbàkke Kajoor ba suñu Maam Anta Sali muy génn àdduna mm-hmm. ñu war ñu war koo taxaw ku ne xam na ne Mbàkke Bawol ak Mbàkke Kajoor mm-hmm. ay kilomètres la ay kilomètres te boobu demee waay yombiwul nii mm-hmm. communication itam yombiwul nii nga xam bu jógee nga xam ko te boobu itam mi ngi mag moo xam ne itam maanaam euh, jamono bu nekk rek war ko gannaaw war ko gannaaw mu toog mu toog ba taxaw si maam Ansali hmm. ba denc ko ca hmm. adiye yu néew hmm. Cheikh Ahmadou Bamba la ñibbisiwaat Bawal a ñibbisiwaat Bawal waaw ci la ñibbisiwaat bi mu ñibbisiwaat Bawal gi itam euh, mi ngi ñëwoon foofu ci Mbàkke dimb ci ginnaaw raay borom saam la bind ab leetar daan ne Euh, waatu bu yetan min abwaabi xaal def ci lettre ndeysaan ñibbisi naa dalal ma nga xam ne mm-hmm. borom sax moo ko indi am na solo am na solo am na solo suñ bëggee xam ne ba xam kii ñuy waxtaane borom xam-xam la man mm-hmm. nañ koo xam ci ndax ñi raw ci réew mi ñoo ko jàngal mm-hmm. sëriñ bu soobe sëriñ bu soobe moom ab wàccuwaayam ci réew mi maanaam yomb naa xam ne ndax aalimul allaama la joo xam ne doy na sëkk rek ñu ne mooy way juru sëriñ Mbacke Bousso. Mhm. muftil bilaad la. Mhm. sëñ Mbacke maanaam wàllu astronomie. bii mhm. nga xam ne moom la ñuy xamee. jawwu jeeg weer yeeg yu demee noonu. mën naa ne réew mi kenn rëwu ko ci. dëgg moom yàlla dogal na ko. ba fii ma waxee yow nii. ci yoonu murit mhm. fépp fu ñu bëgg a def jumaa mhm. bëgg a xam xibla ba ak njabootam la ñuy jëli ñooy wane <laughs> ne wane xibla ba kon loolu moom par yàlla dogal mhm. dañ koo jagoo ba ñëpp far leen ci miin ak fu dul yoon wi sax nag fu ñu leen soxla fu bari bari bare bare bare des lañ fay soxla ci wàllu xam xibla ak yu demee noonu ak wàllu xam biddiw ak yu ni demee kon ñi raw ci réew mi ñoo ko jàngal Ahmad Bamba Sall wax nga ko léegi moo jàngaloon woy juróom sëñ Mbàkke Mor Anta Sali waaye sëñ Bousso bi moo ko jàngal Euh, mag ñi nga xam ne ñoo ko jàngal mooy ñi nga xam ni ñi raw ci réew mi ñu ñoo leen jàngal mm-hmm. ba fi may waxee yow nii bu buñ bëggee xam moom sëñ jaar Jaara fu lu mu liggéey ci wàllu xam-xam mm-hmm. dañ naan ñi raw ci mi ci daaraam lañ génnee alaaji Mouhamadou Fadal moom doy na ci sëkk misaal xam naa danañ ci dikk digganteem ak moom mm-hmm. waaye buñ ne ñi raw ci réew mi loolu moom duñ lu luñ ko kéréel moom suñ sëñ Fàllu moo ko wax moo ne ku dul ki ma joxe woon jox la ki ma joxoon mu def ci man lim def mu def ci man li mu def ci yow mu def ci yow li mu def ci man man Fallou Mbacké maa la raw loolu suñ Fallou ko waxoon mhm. moo ne kuur sëñ Tuubaa joxewut mhm. jox la boroom saam mi ma joxoon mhm. tam borom saam def ci yow li mu def ci man man maa la raw <laughs> loolu moo ko waxal boppam kon ñi raw ci réew mi ko jàngal waaye moom it moo jàngal ñi raw ci réew moom borom saam kooku moom borom xam la boroomi daara la it waaye buñ bëggee xam ñan ban produit ñoo génnee ci biir daaraam macha allah maanaam man meññet moo génnee ci biir daaraam buñ ci mënoon a xam rek ci tënk mhm. su ko defee ñu njëkkanteeg waxtu wi ndax waxtu wi kat xaariwut mi ngi daaw incha allahu taala mhm. jërëjëf sëñ maanaam lim ci wàllu xam-xam wala wax nga lu am solo mhm. Cheikh Mouhamadou Diarra ci liggéeyu xam-xam dama la koy tënkal ci gàtt dama naan la dama naan la réew mi ku ci jànge wut ci borom saam jànge nga ku jànge ci borom saam dëgg la suñ bu soobee euh, alaaj Cheikh Bousso suñ xaafiya maam Cheikh Anta borom daaru sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke Buso mhm. mhm. ba ci mhm. yaakaar jaam ñi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ci borom saam la la génne moo tax ba ba ba ba suñu saaka ba itam yooyu mu naan ca yooyu at la alaaji Seexu Buso laxase Saalum ñëw bawal di buusu ànd ak sëriñ Mbàkke ñu jaari Mbàkke ngir sàkk alxuraan ji ànd moo leen tooral boobee ku fi kàng fóore moo lay seetal booba Mm. Cheikh Amadou Diarra dafa nekkoon université ci wàllum alxuraan nga xam mm. ne mm. bu doon jamono ji diw de moo kan waxaan ñu ne ku ko seere ñu ne ah maanaam ku ko lijaasaal waaw ñu ne Cheikh Amadou na ko ñu ne kon de mokkal na nga xam ne ci noonu la daan la nit daan jàngi ci daara ba mokkal mm-hmm. ba suñu daara bi ne mokkal na mm-hmm. daal la yebal ci borom saam dëgg na nga xam ne boo demee dangay taari ba àggal dëgg la mu ne mu ne mu waxaat borom daara ji ne ko mokkal na Mm-hmm. ñu soog a nangu ne mokkal ñu door a nangu ne mokkal loolu nag li ciy firnde mooy mm. maanaam euh, sëñ bu soobe mi sëñ Cheikh bu soobe ñooñ bi ñuy ñëw mm. fekkoon na seen alxuraan sori waaye dañ doon ñëw di taresi mm. siñu afii mi wax nañ ne borom sam té téyel na ko alxuraan téeméeri guddi eh. téeméeri kaamil te rakkam la téeméeri kaamil téeméeri kaamil suñu afii Mbàkke rakkam suñu afii xam nga suñu afii ni ma ko ci ci xam-xam boo xoolee maam Cheikh Anta mi itam sëñ Gaawaan moo ko jàngal lax de yoog risaala moo ko jàngal lax de yoog risaala tare na fa alxuraan itam Cheikh Baba Xaadim Rasul mi nga xam ne karaamaam gu rëy gii ñëpp gis tam wax ko moom ne karaamati xattuye di mm-hmm. xam-xam boo koy jàngal di wax xam-xam xarut mm-hmm. borom saam moo ko jàngal wallaay ndeysaan nga xam ne wax nañ ne bu mosaan ñëw di jàng si ci borom saam mm-hmm. day ñëw jël bind daal di dellu su delloo buy ñëwaat day way lam jàngoon indaale bu mosaan ñëw nag borom saam day yéem da koy yéem ak mën a wayam waaw ak mën a wayam ba ko dee ku tedd ki daf ko daa wax maanaam loolu jërul yéem sag mën a jàngale rek la. ndeysaan ndeysaan te ku ne xam ne waaw karaama Sëriñ Tuubaa mooy mbind mi. ndeysaan te borom saam. Eh, li coow li bari bari kenn du gis mbindam moo xam ne waaye na ko. Eh, bi. wallaay eh, ndeysaan bi hmm. nga xam ne kon ay jàngal ay rakam. Hmm. jàngal ay mag yoo xam ne itam. Hmm. duñ ay rakam waaye treize nañ fa alxuraan. te ñi mu jàngal ñëpp ay université lañ. ay université lañ ndeysaan kon moom dundam gépp Cheikh Mamadou Diarra amul ñaari métier. Euh, bi ginnaaw bi suñu bu soobee génnee àdduna. Mhm. moo féete woo daara ja mhm. ak xam-xam ba amaatul feneen soxla leneen lu mu fi defar rek mhm. euh, moom effort yi Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne Cheikh Mamadou Fadli danaa wax naan xam-xam yi gën mhm. maa ngi ko jàngee ci sama baay mhm. euh, borom saam borom saam ndeysaan maa ngi ko jëlee ci wax Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul ji ñu wax ne wa afdalul xuluumi bil itlaaqi mhm. tawxiid rabbina ala ittifaaqi ala ittifaaqi wa baxdahu tafsirul quraani suma al xadis qaalahu dayman qaalahu dayman nga xam ne suñu tubaab moo wax ne xam-xamu tawxiid euh, ak ak ak ak ak fiq ak tafsiru quraan mooy xam-xam yi gën mu ne nag loolu maa ngi ko jàngee. ci maam borom Saam ci maam borom Saam. ndeysaan nga xam ne kon Cheikh Amadou Fadel boo ko déggee ma xam-xam moom daanaka. dëgg la euh, dëgg la ci ñi moo ci ñi ëpp lu mu way la. Mhm. ginnaaw nga xam la daan yaxal ay bayit. dëgg la ci tàgg sëriñ bi. baarakallah di ko di ne kon moom dundam gépp ci alxuraan la ko jeexal. baarakallah ak ak am na solo am na solo am na solo. Mhm. maanaam bu ñëwoon sax dundam gépp Mm-hmm. maanaam li nga tënk dafa doy sëkk mm-hmm. mooy que ne dundam gépp ci jàng ak jàngale eh, la ko jeexal la ko jeexal mm-hmm. te alayhi salaatu wasalaam moo wax ni ki gën ci yéen mooy ki xam alquran te di ko xam ne te moom dundam gépp ci loolu la ko jeexal mooy alquran ak xam yi nga xam ne moom la alquran di soxla woo yàlla ñu ko yàlla fayal xam naa bu ñu bëggoon a dikk tënk tuuti ci lan mooy ay jikkoom ay jikkoom lan mooy ay jikkoom ndax it alayhi salaatu wasalaam ba ko suñu borom di tagg xam na ñii ay maamam nag xam na it fi mu ko jaarale mhm. waaye ci jikko la ko tagg wa innaka la ala a azim mhm. maam borom saam maam Mor Jaara mi ñuy waxtaani lan mooy a jikkoom waaw maam borom saam ay jikkoom mën ngaa xulxoo a quraan mhm, ay jikkoom xuluquhul quraan ay jikkoom ah, na ko Seyna Soxna Aïcha waxoon radiyallahu anha jikkoom mooy alxuraan moo tax lépp lu alxuraan wax ci jikko man boo so euh, euh, borom saam da nga ci doxalin ci waxin ndax pas-pas bi jiitu rek mooy roy yonent bi sallallahu alayhi salaatu ci jotul mission bi mhm. ray sa bopp itam ci lu yàlla dogal mu neex la dëgg la moo tax yonent yonent station bi ko yàllay tarbiya mhm. fexe ba jikkoo mhm. ji ñuy wax ak ngar mi dafa la njëkk dindi ci moom ndeysaan ak ngar mi ak ngar mi ak ngar mi xam moom mooy yëg sa yëg sa bopp mooy yëg a bañ xam <laughs> ne du du diir rek munoo dellu gannaaw boo nee waayu doo dellu gannaaw dëgg la loolu ak ngar mi yi nga xam ne jikko yi sang Euh, suñ borom ne ko wa innaka la ala xuluqin azim sa jikko hmm. moo moo kawe yëpp jikko ji rafet borom sàmm mi nag loolu nga koy wax rek hmm, hmm, ay jikko moo sang jikko yëpp ndax boo xoolee ginnaaw bi mu eh, wuutoo kàngam koo xam ni ñëpp xam nañ borom xam-xamam ak dayoo dëgg la dëgg la dayoo di doxal mission ba ba toll ci jenn jamono joo xam ne. Mm-hmm. Euh, maanaam am nga daye ci réew mi daye bu toll ci buur yi. Mm-hmm. ñëpp xam la. Mm-hmm. fi ne lu yéeme ngi am foofu fi ne borom sàmm histoire am doo ko jàng bukk. ba mu ne bi mu toogee buur sàngam. wala bi mu waxee bi ko buur bindee leetar. bi ko buur <laughs> loolu amul ci histoire borom sàmm doo ko ci gis. nga xam ne moom dafa focus rek ci. yàlla mi ko fi indi. te mission loo ko muy jot li yoon yoonu saa si rek mu taxaw ci rek amul fenn xar ma yàlla ci benn magu réew wala wala wala mhm. diggante ci doxalinam woo xam ne doxalin wala ba ñëpp nangul ko ko mhm. loolu nag moo jur bi nga xamee ne moom yàlla jooju mu diir te di ko jam mhm. bi mu tollee ci guddi yoo xam ne way jëla mu tedd wi génn àdduna rakkam ju baax ji yàlla jël dogal ba teg ci kaw loxoom borom sa daal ne jëbbal lépp Seex Bamba Xaadimu Rasuul barakallah nga xam ne boo ñëwoon ci ci loolu nag boo doon wax jikko ji rafet boo ñëwoon foofu rek mën nga fay taxaw yam muy nangu dogalub yàlla nangu dogalub yàlla mm-hmm. mooy jikko ji gën a màgg mm-hmm. te ñu war di ko jàngale mm-hmm. soo ñëwoon ci jamono tey ji nga ne ci histoire laay jàng ana kan moom la yàlla masa yónni woote loo ko magam ju mbokkal ndey ak baay njëkk a bokk njëkk koo ndax da ngay xool ne borom sàmm gi njëkk wuy si Sëriñ Tuubaa la ko sabab ma ko tàmbalee woon ca ba leen seen way jur wu tedd wa daan yar guddi naan leen Euh, mag ñu baax ñi daal dañ daan taxaw guddi di naafila min dë bi saalixiina qiyaamul layli qiyaamul layli mi ngi ci minanu baaxil xadim ku ne xam na ne mm-hmm. booba la borom saam mm-hmm. bàyyi woon xel loolu Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul wax nañ ne moom booba rek la tàmbali moom di mm-hmm. taxaw guddi gi ba mu jeex waaye ku ne xam na ne Serigne Touba itam mission bi mu gàccoo yàlla teel na koo informé te borom saam yi mel na ne xamoon na loolu ndax bu ñu war a wax ci daara ji ñëw wala ñoo leen reer doom nga xam ngi dañ naan bërit jógandoo bu ñu ne bërit jógandoo àlli wi day tasaaroo alxuwaan yooyu su ku tedd gi day toog di ko far par benn benn ndeysaan ba moom yàgg teel naa fonk alxuraan fonk naa fonk alxuraan ku tedd ki ndeysaan nga xam ne borom saam moo mujj joxe ordre ne nañuy tibb nañ koy tibbal mhm. ndax seetlu na ne kat saa ne nañ dem bu ñuy dem mhm. buy waggar alxuraan ja bala ñu bala moo àgg fekk ñu reer ba pare wala ñu añ ba pare mu ne nañ koy tibbal kon kooku teel na mhm. ko xam teel ko bàyyi xel moo tax bi mu wootee bind da ko bind leetar jox rek mu ne ko boo demee daal nee ko lu mu nekk maa nga ca lu mu ne maa nga ca baarakallah <laughs> <laughs> baarakallah kon maanaam jikko yi borom saam daal su ma ko mënee dégg mooy que ni jikko yi gën a rafet. Mm-hmm. moom la ko yàlla joxoon moom la ko yàlla dénk. mooy alayhi salaatu wasalaam li mu waxoon ne yàlla daf maa yónni ngir ma mottali si jikko yi innama bu'ithtu mm-hmm. li utammima makaarima al axlaaq. macha kon loolu la alayhi salaatu wasalaam waxoon. Mm-hmm. kon yi gën a rafet bi ci jiitu. mooy nangu dogalu borom bi tabaraka wa taala mooy ki ko yàlla booleel muy Cheikhul Khadim. moom nanguloon na ko. ban relation la amoon ak moom ndax relation mag ak rakk la wala relation taalu bi akub sëriñ. jërëjëf suñ soxna Lawine maanaam relation Serigne Touba ak. borom Cham borom Cham. Mhm. relation la boo xam ne suñ koy waxtaanee képp ku nekk ci kër ak foo mën a nekk. Mhm. sa yaram dana daw waaye tamit da nga xam ne àdduna. Mhm. ñaari mission la. léeg-léeg bu ñuy jëflante da yëg ne. sëriñ bi mooy jëflante ak magam. bu mbokkal mhm. ndey ak baay. Mhm. léeg-léeg bu ñuy jëflante da ngay yëg ne. Mhm. sëriñ bi mooy jëflante ak ab taalibeem. léeg bu ñuy jëflante da ngay yëg ne borom mooy jëflante ak nga xam ne sëriñ Touba lettre bind yëpp. wax nañ ne bi mu wootee yoon bi ko yónni saa sam ne yaral sa nit ñi. ci himma. dama leen yar ci njàng kese. mu ca saasa la bind ab lettre yónnee la ko boo demee nee lu mu nekk maa nga ci. lu mu ne maa nga ci. ndax da mhm. nga gis daa Abdourahmane Lo mu indi woon lettre boobu ndeysaan bi yàlla dogalee mu ne ko lu mu nekk maa nga ca mhm. daal di toog Mbàkke ku ne xam ne moom itam mi ngi woon ci mission mhm. sëriñ bi jógee na Mbàkke Kajoor ñëw njëkk muy woote yoon bi doon wër réew mi fi fi ngay dégg ñaan sëriñ bi julli na barab sàngam jaan na diggante boobu la bi muy testé réew mi bi mu wàccee Mbàkke sëriñ borom sàmm bi sëriñ bi yeesalal na ko wirdul ma ak xuus yeesal ko suñ bu bi te boobu sëriñ bi woote wul yoon yi ndeysaan xoolal loolu teel nañoo ànd bi mu ne bi mu ko yabalee leetar bi ba mu toll ko loolu itam mhm. woy nag toog mbàkke jàppe boppam taalibib sëriñ bi ndeysaan sëriñ bi itam jàppe ko mag ju mbokkal yaay way nga ne way jur nga ne bi bindee bind boo xam ne mhm. muy dem ci géej gi di wax ne ne ko na yi nekk ak yow mhm. te nga yërëm leen. Hmm. théâtre boobu maa ngi ci jëfandikoo. Hmm. Euh, maanaam as-saqiq. Hmm. saqiq moom mooy tegtale koo bokkal ndey ak baay. ci biir leetar bi ndigal yi nga ciy gisewaat ne sëriñ bi. mi ngi digal kum sañ a digal tam nangul ko ndigal li. borom saam ñëw jëfee loolu. ndeysaan euh, moo tax mag ñi. muy. Euh, relation relation ba am solo bi nga xam ne mm-hmm. amoon na ci diggam ak uh, mag ñi mm-hmm. ak Serigne Touba yëpp rek mooy ndigalu Serigne Touba mu la leen wéyal ci mm-hmm. ko jàppewu ko woon rakk waaye ab ko jàppee woon nga xam ne la doon wéyal ci borom daaru ak maam Cheikh Anta ak uh, Serigne Hafiya ak uh, Serigne Massam mi nga xam ne ñoo bokk day ñoom ñooñu ñoo la ko Serigne bi dénkoon mu mu mu yor leen ci biir relation boobu nag bi mu ñibbisee ku ne xam na ne Serigne bi ñëw na Mbàkke borom saam di dox diggante sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñooy bokk yi mm-hmm, mm-hmm. da ci taxaw taxawaay bu rafet mm-hmm. nga xam ne sëriñ bi daana jógee daaru salaam di ñëw mbàkke di fekk si sëriñ Tuubaa itam jël mbooleem koo xam ne doomi soxna nga wala nga mm. bokk ci askan Mbàkke ne ko aslamtu nafsi mu jalaal la dénk la borom sax mën nañ cee lim ñu bëree bëri mm-hmm. ay si Mody Niang sëñ Mbàkke Ramata mm-hmm. ñoom ñëpp taalibe bi mm-hmm. sëriñ bi moo leen jox sëñ bi leen féetaleeg borom saam ndeysaan ñu mu ne wax nañu yi ci doxalin wu am la sëriñ bi mas naa ñëw Mbàkke jullee fa ak fajar ak fajar loolu sëñ Mody Niang wax bi bi bi mu sëlmalee daa gestu borom saam ne ko war ngaa sant yàlla ndax dina nga xam ne lu yàlla yàlla di man rek lay déglu mm-hmm. lu ma ne ko def ko mm-hmm. dina ko def te du laaj lu tax mm-hmm. wa akramtani ikrama man masa faal wa ma talabtu minka ya rabbin faal jo daan doy sëkk daan na ko yow nag ñi yàlla bind ñëpp yow laa ciy déglu loo ne ma def ko dinaa ko def te du la laaj lu tax kon foofu daf fi dégg ne sëriñ bi mi koy wan li li li mbir mi rëy rëy rek jàppal na yaay sama kilifteef gaa ngi fi ba tey kilifteef gaa ngi fi ba tey ñu ànd bi am lanteeg tubaab bi. ci 1895. Mhm. Mhm, mhm. ba dem ci géej gi. bindu ko lettre bi. téyeloo ko xale yi. ak wax borom euh, Seyraim Fall nii. fa la ko dëxaloon. ak sëñ Manoumbe ak ñu bëree bëri nga xam ne ci borom Samb lañ nekkoon. ndeysaan biñ fa nekkee nag ba sëriñ bi ñibbisi. ba sëriñ bi ñibbisi. jaar fi mu jaar fi fépp ba ñëw ci euh, Darou Salam wax nañu bi ko borom Samb gisee daf ko ndokkale ne ko ah alhamdulilahi rabbil alamin bi nga dellu see ci samay loxo mhm. mel ne ku ca yéemu mhm. wax nañ ne sëriñ bi dane ko bu ma jaaxal mhm. ndax de na nga xam ne li xew lépp xam nga ko ndax li xew ba ñëpp di fi ñëw man la yow soxna si ndeysaan ku ñëwoon ci man fekk ko fi bu ñëwee ci yow fekk ko fi ndeysaan kon loolu da nga dégg ne ñoom ñaar mësuñoo réeroo diirub diirub géej gi leetar bu suñu tubaab bi adressé ko Euh, borom saam la ko jox. am na solo jox ko cee ndigal ne ko mu lawaat ci biir ci biir ci biir mag ñi. ba ni mu ñëwee nag ba ñibbi si Murtani gis nga. Mm-hmm. Mm-hmm. bi werdul maxuus ñëwaatam. Mm-hmm. leetar la bindaat. jox ko borom saam. ne ko yonent bi day indil na ma. alayhi yor koy waaye itam am nga ndigal. joxe ko fere yëpp di ko jël see fi yow. ndeysaan nga xam ne ba tey itam ambassadeur la moom Mbàkke xam na ne ku tedd ki xam na ne ku sëriñ borom saam mënta déplacé wu. ngir. li leen li ñu bokk war koo sàmm muy seen nijaay ji. Hmm. tem yoral ko ko. Hmm. Hmm. moo tax lépp lu mu yëkkati rek moom lay njëkk a jox moom lay njëkk la koy jaarale adresse ñëw fa. ci noonu nag lañ jaxasoo ba ni sëriñ bi demee ci géej gi ba ñibbisi ba dem Murtani. ba ñëw Jolof. sëriñ borom saam nag fekk. sëriñ bi soo ba génn na àdduna mm-hmm. am na temps mm-hmm. mu jóg nag jël ay addiyaam ànd ak mbooloom dem siyaare ci sëriñ bi ndeysaan ci la ko sëriñ bi yee salaata wirdul maqu mm-hmm. ci ak gisante ndax musaafaxa ndax euh, ahlu dafa bokk ci seeni jaayante lépp looy def da koy def musaafaxa ngeen ngeen ngeen joxalante ko ci la ko yee salaat nag daa di mu jox ko ay addiyam mu daal di ñibbi siwaat mbàkk wéyal mission bi diir bu gàtt itam sëriñ bi amaat ndigal ci boromam mhm. tubaab bi ne ko da ngay jógee. Mhm. jolof mhm. Euh, ñibbisi. njaareem ndax wax gi tubaab bi gis nañu njaareem pay la te neexut a wootee wax nañ ne sëriñ bi mu jógee jolof it yónni na daw ne ko wax borom saam ne ko maa ngi jógee jolof jëm njaareem ñu daje ndeysaan bañ dajee euh, si borom sëriñ tubaab daf ko wax ni borom saam daf ko wax ne da daa xool sëriñ bi di ko xool ba mu yàgg mu ne ko xanaa askanu mbàkke de maa ceppug muñ ngir bëcc bëccee gi koy def ndeysaan waaye daal ne ko nag hmm. na nga xam ne lépp loo am te di ko hmm. joxe hmm. joxal bokk yi wallaay ndeysaan ndax ma dese te ma dese la te ma dese ak yow <laughs> nga xam ne moom mu mbaay meeg ku mbaay meeg lépp rek mën na koo muñ waaye moom na am sëñ bi rek na am sëñ bi ci la ko Sëriñ Tuubaa wax ne ci la ko Sëriñ Tuubaa wax ne sant naa yàlla ndax li li ne fi man te ñëpp soxla ko boo koy téewoon kenn du ci jot wallaay ndeysaan nga xam ne cër la te participation bu am solo la. bu am solo la euh, ci liggéey ndax ku ne xam na ne diggante. Hmm. Euh, ñu bokk yaari way jur. Hmm. loolu moom suñu yasan ci misaalum àdduna rek. Uh-huh, uh-huh. tey ki yàlla nattoo mu doon président de la république. Mm-hmm. poste yëpp bu ko ay mbokkam bëggee. du la géey. sonal nga ko <laughs> ne la mënumaa ñàkk da nga koy bàyyi mu liggéey ci compétence. waaye rakk ji mbokkal day ak bàyyi. loolu doomi nijaayam doomi bàjjen bu ñëpp dikkee bëgg a dugg. problème day daal di am. loolu nag la sëriñ bi xam. Mhm. borom saam itam ko doxaleel ko doxil bu am solo. am na solo moo tax diinaa bi itam. bi sëriñ bi ñibbee seen njaareem it. Mhm. sëriñ moom. Mhm. mën mën li naan mëntoon a. Eh, ñàkk di gis borom saam. nga xam ko daggaloon kër. njaareem. daal di ko def buntu sarale. ndeysaan daan sàkku ci ndaw ci ci ci fere yi nañ leen. sàkkoon borom saam. ni ñu ko jamono bu nekk weer bu nekk dafay ñëw. am fa fukki fan. wala semaine. wala fukki fan ak juróom mhm. ñuit lan teeg moom wax nañ ne bu ko masaan di yónni yabale itam am na boo xam ne suñu musaaka bi moo ko nettali mhm. dafa wax ne mhm. sëriñ bi dafa yónni suñu musaaka ne ko ngir mu wol ko borom saam daal ne boo demee nag nee ko sëriñ bi nee na soo amee jot soxla na la te bu ko wax rek daal di ñëw ndax boo ko waxee daal di ñëw day daal di jóg fa saa sa topp sa gannaaw te bëgguma ko finnaal ndax mag la wax ko ko te toog saa bu jógee ndeysaan wax ko ko te toog saa bu jigéen da wax ko ko yooyu nu am na jataay boo xam ne bi mu mm-hmm. ñëwee mm-hmm. dafa fekk sëriñ bi loolu suñ ceernu geloo nga nett dafa fekk sëriñ bi di bu banti jalambaan yooyu mu daan xambu yi ñu daan jaaroo jaan daan jaaroo ngir fas yéene mm-hmm. nekk woowal mbind mi ndeysaan liggéeyam boobu bi mu agsee sëriñ bi fekk na fere yi ci njëlbeen gi ñuy toj peñi suukar sëriñ bi daal cay toj ci la borom sax ci la ku tedd ki pare ci la mu doon def wëlbatiku war a daje sëriñ bi. Mhm. Euh, bi mu ñëwee da ko lal ak sijaada. Mhm. sëriñ bi daa di borom sax bi jëlaat sijaada gi delloo ko. ñoom ñaar ñu buuxante sijaada gi ba ñoom ñaar ñëpp dañoo mujj toog ci suuf. Mhm. wax nañ ne sëriñ bi wax fere yi. Euh, fere yi xamal sëriñ bi ne ko ah borom saam barkeelu na ci liggéey bi. mu ne nañ ko ber. Mm-hmm. ndax moom sañu maa lekk ñaqam ndax maa ko war a liggéeyal. Mm-hmm. ngir lan da ngay déggaat ci diggante relation mag ak rak. Mm-hmm. ci biir relation boobu bi mu ko bi bi ñu toogee ab diir nag. sëriñ bi daane ko man day maa la woolu woon. ndax Seydina Muhammad daf maa amal gan. wax ne daf laa sàkkoo gis itam nag mm, mm. borom saam daal di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin santaar yàlla ndokkale ko daal ne mm. ndax day mbir la moo xam ne ñu bëri dañuy dugg xalwa ngir sàkk koo gis waaye moom mu sàkku laa ngi te sant yàlla sëriñ bi itam daan ne ko moo ne day loo ci xamut nee na kuñ ko tudde yaa ko ci gënal ndeysaan xam nga yaa ngi waxaat ja tudde giñ ko tudde seen wallaay ndeysaan alayhi salaatu wasalaam uh-huh. ci dégg uh-huh. ci ci ci bi alayhi salaatu wasalaam moo tax yonent bi bàyyee ko xel noonu ndeysaan am na weneen yoonu ñaareel woo xam ne itam uh-huh. sëriñ bi dafa jugal boppam ñëw di seet si uh, ku tedd ki Cheikh uh, Baba Khadim Rasoul moom borom saam bi mu ñëwee fekk sëriñ bi bind minanul baaxil xadim jox ko mag ñi ñi di ko jàng bi borom saam ñëwee xool xasida gi daal di koy tari ndeysaan loolu nag yéem mag ñi. mooy baraanil baaqi min al amraadi wa kabba man an di ko jokk jalaate. Hmm. ba agsi ci sëriñ bi. ndeysaan sëriñ bi daan daan ne lool laa bëggoon ngeen xam ko ci moom. Hmm. nangeen ngeen xam ne lu ne fi moom mi ngi fi man waaye lu ne fi lu ne ma mi ngi fi moom. baarakallah ubbante wuñ am na solo kon dañuy dégg ne kon. Hmm. ñaari relation yi diggante. relation bi leen boole. muy mission sëriñ bi. ñu ngi ko doon doxal mm-hmm. beneen relation bi mooy bokk ñaari wayjur ñu ngi ko doon doxal mm-hmm. Mm-hmm. beneen relation bi nga xam nag Cheikh du Diarra moom moo ko gàlloo muy sowees ci sëriñ bi di di di taalibeem ñu ngi ko doon doxal kem kàttanam nga dégg ci itam sëriñ bi itam moom lu mu mës a yëkkati informé na ko ndax bi mu ñëwee Mbàkke li mu njëkk a def mooy da koo woo moom borom saam mi woo Sëriñ Seexu Buso Mm-hmm. ànd ak ñoom jóge Mbàkke boobu sëriñ bi sant ko Daaru Salaam mm-hmm. ñoom ba ci fii ci Sonatel bi ci aw xura fi nekkoon ñu toog mu daal ne dama bëgg ñu waxtaan mm-hmm. ndax mag ñi dañoo yàgg di ñaan seen borom ñaan googa nag suñ borom daf koo nangu waaye daf koo nangoo ci suñ jëmm ji ndeysaan daan leen penku dana ñëw waa penku dana ñëw waa sowu dana ñëw waa gànnaar dana ñëw waa saalum dana ñëw buur dana ñëw ànd ak dagam doomi soxnaat dana ñëw ànd ak taalu bi Mm-hmm. lu àdduna yàgg-yàgg mm-hmm. bu leen soppeeku yéen ndeysaan ndax la ngeen nekkoon mm-hmm. ba yàlla nangu ñaan gi te nangoo ko seen biir na ngeen way ci loola kon toujours rek borom mm. saam mu ngi doon am information mm-hmm. ndax ñaar ñu war a ànd mm. te mën a taxawal dara mm. dañuy informer kon information la am solo la muy ci leetar yi mm-hmm. mu ci wax yi nga xam ne eh, gisante la mm-hmm. ak yi nga xam ne itam day jël mag yónni ko ne mu dem ca eh, borom saam waxal ko nangam ak nangam uh-huh. fi mu ne suñ Mouride ñaaw mi nga xam ne sëriñ bi moo ko daaloon ci borom saam uh-huh. borom saam daana ko jël di ko yónni ci Cheikh Ahmadou Bamba hmm. Xaadimu Rasuul hmm. yónni na ko fa yoon woo xam ne bi mu ñëwee hmm. daa fekk gone euh, fere di liggéey mu mu mu cay barkeelu ba agsi ci ñu ne kon kat borom saam yónni na fi ndaw mu recevoir suñu mudu ñaw mu wax ko la ko borom saam wax bi mu ko tontoo pare nag suñu mudu ñaw xamal ko ne damaa xalaatoon ma ne damaa amoon yéene toog ci njaaram gi liggéey ngir liggéey ci la ko Sëriñ Tuubaa wax ne dellul fa nga nekkoon nga nekk fa te nekkal ma fa ndax na nga xam ne foofee ku fa nekk day man mhm. nga fa nekk ndax maa fa waroon nekk mhm. te te aw ma jot ngir liggéey bi ma yor mhm. ne ku fa nekk da nga am ñeenti pay ku liggéeyal borom sam yàlla dana la fay yonent bi dana la fay alayhi salaatu wasalaam man Serigne Touba dana la ndax maa ko waroon liggéeyal te aw ma jot moom borom sam am na fay te dana la fay ñeenti la kon Mame Mor Diarra magi mag borom sam borom ñeenti fay yi mooy ki ñuy waxtaane ñi ngi fàttali ne yéen a ngi ñuy topp ci seen télé réew mi TV ci seen émission keppaaru mag ñi ngeen baaxoo ci ànd ak seen bokk sëñ Baara Mbàkke mm. tey ñu dalal sëriñ Assane Mbàkke mu sëñ Saam Astu moom sëñ Cheikh Astawalu moom mm-hmm. mm-hmm. fukki fan ak juróom ci weeru kor yi ci mm-hmm. Mbàkke xewar fi nga xam ne fi la ganee woon jamono foofu yi rekk lañ koy fàttali ko sëñ Assane indi takk-takk yu am solo am solo sëñ Fàllum sëñ Baara Xuréeji démb daf may nettali maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax au passage di ko ñaanal sunu borom guddal sëñ sëñ Tuubaa bi mu jógee ci géej gi dikk Daaru Salaam mam si Anta di ko ganale. Hmm. dafa mboolem lu dagana rey daf koo rey. Hmm. ne ko mboolem lu daganoon a rey dagan naa def naa ko. Hmm. waaye nag sa ndigal lay diglu boo ne ma woon nit ma boole ko ci. ndax am na ku diwa ngi nii te ci sama moomeel la nekk waaw ne ko ci sa te ci sama moomeel la nekk. nee na sañ Tuubaa kooku fukki nit ak ñaar la ko booleel fukki nit ak benn ak kooku muy fukk ak ñaar mu jël leen jébbal leen borom. borom saam yoon wi ngay wax nii ci jolofit sëñ Mbàkke jaxate moo ma nettali surtout suñ Mor sa Jaxate la mhm. maam Mor Asta Jaxate mooy maami yaakaar naa su mooy maami Sëñ Saaliw bu dee mooy maami Sëñ Saaliw bi muy dem Jolof dafaa jaar da doon wëllëreem mu defaral ko ñetti ginaar mhm. ko ko bi yàlla dogalee borom si am dem ci sëñ Tuubaa dem Jolof ba mu yeesalaatal ko lii mhm. maaxuus wii ngay wax nii daf koo jox ndigal ne ko na nga dëngal saw yoon mooy foo romb te wëllëre nekk fa na nga fa jaar bi yàlla dogalee mu dëppaat ba tolloowaat ak ci maam Mamor Asta Jaxate ngir war faa jaar ba mu fa jaaraatee la mu àndal ca mbooloo gileem la ko la ko reyal mm-hmm. Baye Mbàkke Jaxate moom ma ko nettali yëpp sëtam la mm-hmm. nee na nettali nañ ci histoire ne yoon wu njëkk ba mu fay jaar ñetti ginaar lañ ko defaral ba mu dëppaatee mbooloo ma mu àndal ba mu fa jaaraatee gileem la ko suñ Mor Asta euh, euh, ganalee mm-hmm. kon loolu day te tegtali ne yoon yi ngay wax ni lu ci ne histoire saxal na ko xam naa dañuy njëkkantee ak waxtu wi rek moom relation bi mu amoon ak Sëñ tubaakoon kon relation mag la ak rak Mm-hmm. waaye nag relation taalibe akub sëriñ gi da koo gën a mm-hmm. xóot mm-hmm. yaakaar naa même relation boobu la am ak it ay rakkam maam Cheikh Anta sëñ gaawaan ak mboori magi taalibe yi sëñ Daalu Asan Njaay xam naa damay njëkkanteeg waxtu wi rek ndax li ñu desee kañ la fi jóge ak bu fekkente ni mën nañoo tënk ci lu mu gàtt gàtt gàtt ci ay injazaatam ndax daa mel ne ci wàllu jaamu yàlla sori woon na ci lool waaye it nag wàllu gor ay dëkk ngir defar ay nit waaye ngir sàmm ngoram waaye ngir sàmm diineem ñu boole ko kañ la fi jóge rek incha allahu taala door te tëjee ci maraas yi marsiya yi nga xam ne mag ñi defaloon nañ ko ko incha allah. macha allah sëriñ euh, Baara borom Saam ku jàmbaare la woon. Mhm. ndax dafa am ñaari mission yu mu gàtt yu mu gàddu woon xam benn taat ñett yoo xam ne benn taat dugg ci. Mhm. ku ne xam na ne daara la yoroon. am lu ko waroon ci sëriñ bi. Mhm. waaye am lu ko war ci dundal suuf. ku ne xam na ne wax nañ ne. maanaam ci. ak ak nekkam moom borom hmm. saam ku amoon tawféex la ci jaxasoo hmm. ci di gëm ak mag ñi hmm. te teewut mission bi mu yoroon ba dara tàddawu ci ku ne xam na ne si amaloon baaram yi rek bi mu koy bi koy naan yóbbiitu yu salli su ma yusbi saima wa juduhu illa ka am taari wa illa ka am taari wa bili nit la woon koo xam ne <laughs> daraan yendoo woor bëccëg yi di fanaanee naafilu guddi yi ndeysaan téeméer rakkay borom sàmm mm. ñëpp xam mu ne yabiitu yusalli suma yusbiru saima ah, wama juuduhu illa ka am taari illa ka am taari waa bi li <laughs> baraka ab tabam mel ne mm. ab taw fu ñu daan mm. si ndimbal la nga xam ne yàlla daf koo dimbaloon mu amoon personnel mm-hmm. ndongay tërbiyee yoo xam ne dañ daan liggéey nga xam ne borom sàmm nit daana ñëw ci rek ngir lum yóbbu këram Mm-hmm. mën nañ cee joxe eh, bu misaal mu gàtt ku ñuy wax si Ibrahima Masina nga xam ne. Mm-hmm. góor yàlla la woon. Mm-hmm. waaye yàlla daa dogaloon mu doonoon nit koo xam ngir wër gaañu baax ñi fu ñu nekk. wax nañ ne jaar na ci barab yu bari di fa fàgg fàggu ñetti dërëmi ngurdu. ba borom saam. daan ko day dama man de damay kuy sàkku ndimbal. bëggoon ñetti dërëmi ngurdu. borom saam dalal ko. jox ko nekk. ngir mu am fi ñetti fan. diirub hmm. li mu fa am nag. Hmm. ba borom saam war koy woor di ko yeewi. daf hmm. ko wax ne man day man yow yittewuma sa xaalis. li ma soxla ci yow mooy ak ñaan ndax fa ñetti fan yi ma fi nekk. ni ma gis nga di ko fanaane. fanaane taxaw bët set. kooku man du ma lekk xaalisam ak ñaan. wallaahi bu ne ko ñetti fan. ñetti téeméeri rakka ñetti kaamil ñetti kaamil <laughs> lu may doyee sa lu may doyee sa loolu taxawaay boobu la man <laughs> loolu la meloon nag suñu daara sa njaay mii nga xam ne moom itam hmm. seenu kóllëre hmm. dafa dañoo jaxasoo woon dem lante dikkalante <laughs> ba borom saam toogee ab diir gisu ko hmm. mu bind leetar laaj ko ak Euh, maanaam féddale ko ak nameelam lu mm. lam ko tontu mooy jël ab bijaaw def ci biir leetar bi mm. daal di koy jox daana ko gan ji de moo ma gane moo tax <laughs> tànk yi mënatut a mënatut a a sori itam mm. noonu la meloon nag ma Abdoulaye Niass noonu la meloon nag mboolem magi réew réew mi yëpp xam ne am na solo euh, taxawaay ba am solo la am na soo ñëwee itam ci ay injaasaatam ab taxawaayam borom saam dama laa mën a waxal ne fii ci réewum bawal mii mm-hmm. lu fiy suuf borom saama ko moom dëgg la. Mm-hmm. lu fiy suuf. Mm-hmm. da tàmbalee ci pincu mbàkk xewar bi. Mm-hmm. ñëw ba ci euh, fi sës ci. jumaa yi euh, Seexul Xadim ci kër gu mag gi. penk boobu jël ko nga ñëw ba ci paase jannatul maxwa ñëw ba daaru tansil ba ci sow bi nga làng waar woowu ba ba ngay dem misra ba ba ngay dem misra daal di sës ca euh, daarul muxti wër noonu ñëw xam naan jumeen jëy ca kaw ba Touba Belel ñibbisi fii ci bustaanu bustaanu xaaj nga xam ne ba ci daaru karim bi ba ci daaru karim loolu yëpp sëñ Masamba suufu sëñ Masamba soosu suufu borom saam borom la ko jox loolu li ko mayoon mooy dafa am njaboot gu ma àndaloon goo xam ne dafa leen daan jàngal alxuraan di leen jàngal xam waaye di leen tarbiya itam looloo sabab nag fu mu nekk ba mbooloo ma doy mm-hmm. mu sàkk feneen mm-hmm. ngir jàll fa ñeneen ñu mm-hmm. gën a mën a ñoŋal seenu seenu seenu seenu wut yàlla ci moom loolu nag moom ragal yàlla gi mu doon jëmbat ci ñoom ba mbooloo mi mu yar ñëpp koo ci xam rek da ngay gis ne loolu loolu la loolu la borom saam jëmbat ci ñoom moo tax nag barab yi ma la wax yëpp daa amoon ay daara wallaay ndeysaan barkal wallaay foofu ñu daan wax tawféex mhm. fa ñuy wax jannatul maxwa mhm. fa ñuy wax misra mhm. fa ñuy wax euh, euh, bustaan ndokk yooyu yëpp ay daal la yoo xam ne même moment dañ daan ab gorab la ab gorab la yëpp moo gor te moom même moment dañ daan dañ daan doxandoo barkeelu mbiram nga xam ne daa rek kon boo génnee Touba boo génnee corniche bi rek mën naa ne li ko wër ci wetu sowu gi lépp borom sàmm ko war barkeelu mbiram nag da nga ci xamee leen mooy ni ni ni ni ni mu yéemee mooy maanaam misra googu noonu mm. bi mu ko sancee ba pare mm. dafa ne woon ña dëkk si woon moom dafa leen waxoon ne na ngeen xam ne nag nawet bu jot mm-hmm. ku am ngeen am ku amul ngeen am wallaay ndeysaan li ngay dégg misra ñàkkum nawet nag moom du néew loolu fu loolu di baatin loolu waxi baatin la <laughs> fa cala fa cala sancal nag mm. euh, doomi nijaayam ji di Sëriñ Mbàkke Buso suñ Mbàkke Buso foofu ci ci cekkeen ndeysaan nga xam ne mhm. boo ñëwee ci ndokk gi itam mhm. bi ñu ko sàncee itam ku ne xam na ne jumaay Tuubaa ji bi ñu koy defar dañ koy liggéey xeeru carrière yi mënoon naa mhm. jóge fenn fu ne waaye ndokk la la la doon jóge la la doon jóge loolu itam ci barkeelu mbiram la ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan mbiram la ba tey nga xam ne kon ay india satan boo maanaam baal ma sëñ Fallum sëñ Baara Xureeja démb daf maa wax ne ma borom saam li tax yàlla barkeel mbiram da ngay xool li am solo ci yoonu murit lépp ci biir ab liggéeyam la génne yaa ngi koy wax ndokk googu mm-hmm. jumaa jumaay tuubaa jii mm-hmm. nga xam ne ñun yoru murid symbole bi gën a mag ci li mm-hmm. ñuy xool mooy jumaay Touba fa la sëñ mag bi nekk xeer yiñ ko la géeyee ci gorob borom saam la génnee xoolee garage bi gën a mag Touba ci gorob borom saam la nekk mooy bi nekk tawféex soo xoolee pale bi ñuy wax pale Njuga bi ci gorob borom saam la nekk hôpital bi njëkk tuubaa nga xam ne murid yee ko defal seen bopp muy Matlabul Fawzayni Matlabul Fawzayni jannatu ci gor borom saam la nekk. Mhm. université bi gën bi mag bi Sëriñ Muntaxa di liggéey nii. Mhm. ci gor borom saam la nekk. Mhm. hôpital Seexul Xadim bi gën a mag it ci Touba muy niveau 3. moom it ci borom saam la nekk. macha allah kon loolu day barkeel. <laughs> day barkeel barkeel gi yàlla dimbalee borom saam. barkeel gi yàlla barkeel mbiram. nga xam ne léppi Sëriñ Touba ci léppi borom saam la nekk wala léppi borom saam ci léppi Sëriñ Touba. waaw loolu Sëriñ Touba moo ko ba mu informé ngay yar nit. Mhm. ba toll ci war koo. Mhm. yeewi na ko dama bëgg nga dem nag liggéey li borom sàmm. ba ñëw def na ko suñu mbindum bi def na ko seera faal ñoom ak ñeneen ñoo xam ne mhm. ba da lay yar ba war laa yeewi ne nga dem nag barkeelu ci liggéeyal borom sàmm ndeysaan boo paree nag mu doon la wax ne am nga am nga am nga am nga ngërëmal yàlla euh, ngërëmal yàlla ñoom ñaar dañoo réeroo wut wallaay ndeysaan ci ci benn mbir am na solo moo tax nag euh, suñ tubaa moom moo joxoñ mag ñi borom sàmm mag ñëpp daan wut lu neex Serigne tubaa di ko jaare ci. di ko jaare ci borom saam di ko jaare ci borom saam. Mhm. moo tax nag euh, taxawaayu ba yéen yu am solo yoo xam ne. am na solo am na solo am na solo kon dañ ciy déggee ci nii rek borom saam ab liggéeykat la woon. Mhm. looloo tax boo xoolee kilométrage yi mu gor. Mhm. boo ko dalee ndokk jaar biir Mbàkke. ba egsiwaat Mesira mhm. ba sës ca Daaru Muxti daanaka da ngay gis ne mhm. ay kilométrage la yu bëree bëri bëri yoo xamante ni moom moo ko goroon mhm. lan la fa doon def jaamu yàlla ak liggéey képp dong nga ko ci masoon na ñor jaamu yàlla ak liggéey dong la fa mas a def ndax fu mu ci mën doon tey boo fa demee da nga fa fekk dara ciy jeexit ci ak njabootam ba jaar saamuk sëñ baarako rek saamuk sëñ bi foo fekk rek boo demee ak njabootam nga fay fekk loolu nag day tegtale Mm-hmm. lii wolof yi di wax naan baatu toog muy dox mm-hmm. mag ñi nekkuñu woon ci loolu mag ñi ñoo nekk ci mm-hmm, loolu ndax kilométrage yu toll noonu bu ñu la waxee moom lim dund nga xam ne soixante quinze ans kese la dund maanaam tey liñ la wax ne la moom dafi réalisé lim jàngal ci ay boroomi xam-xam waaye lim fi gor ci ay dëkk waaye nag ak jaamu yàllaam nga xam ne bis bu set téeméeri rakkaa la daan naa naafila kaamilu alquran la ko doon la ko doon séddalee mhm. su boobaa kon da ngay xam ne mhm. kii ak dundam li mu ko feesalee woon lépp mooy lu neex yàlla tabaraka wa mhm. taala kañ la fi jugee ak bi mu fi jógee daa mel ne siiw na ci ne ne Serigne Touba joxe woon na ndigal ci ne nañ ko way nañ ko way maanaam borom saam li tax mbiram yéeme dangaa tudd léegi mook sëñ Seexu so jataay bu leen sëñ Tuubaa woowoon foofu ci tawfiix ci ginnaaw Sonatel bi ñoom ñaar ñooñu dañoo am jagleel goo xam ne ñi ko sëñ Tuubaa defal bariwut mooy di dem ci géej gi yëkkati soxna jox leen mhm. dellu siwaat ci géej gi mhm. jëlaat soxna yooyee mhm. ñi ko suñ tubaab si defal loolu day wane ne ñoom ay mbujj ay mbubbi wàccaayam ay mbujj wàccaayam lañ sëñ Seexu Buso mii 1912 bi suñ tubaab jugee ci géej gi jugee Jolof war a dem Njaaréem xam nga boroomam da koo wax ne ko garabi Tuubaa rek boo ko séenee loo jaayante woon ak yàlla yàqu na Lazare la jaar ndaam bi mu demee nuyoo moom yëkkati simmi mbubbam jox ko Mm-hmm. sëñ seexu simmi mbubb mi mu soloon jox sëñ tubaa sëñ tubaa sol mbubb moom mm-hmm. sëñ seexu sol mbubbum sëñ tubaa sëñ tubaa bàyyi ko fa dem jaareem mu faatu ci 1912 googu mm-hmm. <laughs> moo yoroon way moom soxna fat si la libaas way juru soxna moom xam nga am naag moom sëñ sëñ abbas buso mooy caatum sëñ seexu loolu day tegtale ni ñaar ñi li ñu séq mbiri biir la gis nga borom saam soxna pend bu ya way juru soxna sëñ seex pend gis nga ak lim séqoo nag moom ñaar ñi kon day wane ni ñaar ñi ay mbubbi wàccaayu sëñ tubaa lañ woon kon day tegtale ni am na fu leen tegoon. Mhm. kañ la fi euh, bàyyi koo ak tey damay wax ne li Sëñ Tuubaa séq ak moom bariwul ni ndigal li mu joxe ne na ko ñëpp marsiyaal mhm. joxe ndigal ne na ko ñëpp tuddee doom. Mhm. xamuñu ci keneen ku ko Sëñ Tuubaa ku ko Sëñ joxe woon ndigal lu mel noonu. loolu day wane ne kon worma ji ngay wax ne moom la séqoon ak moom ak kilifteef gi nga xam ne moom la ko doon bàyyee xel. waaye kee it diggam ak boroomam li mu ko doon bàyyi xel ñoom ñaar lu mel noonu lañ séqoon kañ la fi bàyyikoo ak ñan ak ñan ñoo ko ak lu ñu wax ci moom. jërëjëf foofu la ñuy tëjee incha allah mu mel ne borom saam mi ngi fi vingt ans vingt ans boobu hmm. sëriñ bi mi ngi njaareem mi ngi ci njaareem mi ngi bi mu bàyyi ko itam ñu eh, ñu wax sëriñ bi ne ko ah, borom saam bàyyi ko na fi sëriñ bi moom ci saas daal waajal ay bagaasam ndeysaan jóg hmm. wax njaboot gi ñu wa ñu taxawu ji ko hmm. bi mu jógee ci lañ informé tubaab bi ne ko sëriñ bi mi ngi dem Mbàkke ci la ko la ko tubaab bi wax ne da ngaa nekk résidence travail mënoo jóg ci la woo Euh, sëriñ Mbacke Bousso. ndeysaan damaa bëgg nga dem taxawu ji li ma ko. wax nañ sëriñ ci la Serigne bi waxoon it ne. Euh, loolal Qur'an wal xadis. wa manaafiul muslimina ma biitu fi dunya laylan waahida. ndeysaan bu dul woon ak alxuraan ak xadis. ak njëriñ yi ma yoral jaam ñi duma ma fanaan naat ci genn guddi. Mhm. ci ci jamono ndax sama wéetal dem na. ndeysaan daa dee wax suñu bàkk bu daanaka bu ma boo demee dama bëgg nga nga nga nga taxawu ko. te nañ ko mhm. denc fa sëriñ bu soobee. Mhm. ndax sëriñ bu soobee kat yàgg na maa laaj wéetal. ndeysaan te mm, borom saa mën na wéetal ku nekk. boo demee nañ dox uh, mu kàllaf. mu am kàttan mu jël njur taxaw ci barab suñu bu soobee jublu peeku sànni. bu sànnee fu njur la dal nag nañ xam ne foofu mooy barab borom saam. mooy barab saam na nga xas séeréel mbooloo ma leen moom borom saam ak suñu bàkk Kajoor laa ñoo xam ne yóbbaale wuñ. bàkkaar fañ jëm. Mhm. bàyyi wuñ bor fiñ jóge. ndeysaan. daane nag suñ bu soobee suñ mbàkk bu teg ca daane gannaaw biñ bi ma biñ biñ tiimee yonentu sallallahu alayhi wasallam ak léegi. Mhm. tiimaatuñ fu ko gën a tedd ka euh, borom saam. ci mhm. ci ci taxawaay kon moom 1920 la fi jóge. sëriñ bi itam joxe ndigal ne na ko ñëpp marché daal. marché nag tàmbalee ci. Euh, mën nga cee lim. sëñ Cheikh Coro sëñ Balla Coro mhm. sëñ sëñ sëñ Mour Moustapha mhm. sëñ Fàllu mhm. euh, sëñ Amam Lamine Baara sëñ Maya Sine Umi Jang sëñ Mor Fati Touré ak euh, ak ak mboolem mag ñi nga xam ne ay waykat lañu Nibra suñ jàmbur Nibra suñ jàmbur mooy mooy mooy mooy sëñ moor sëy sëñ yi euh, sëñ Mor sëñ Mor sëy sëñ Mor sëy Nibra suñ jàmbur Nibra maanaam mooy ji tembe bu dul woon ak sëñ dese Mm. dañ naan jant bi doon leeral fay na mm-hmm. moom moom la jëfandikoo wallaay ndeysaan boo ñëwee Cheikh Ahmadul Fadal moom yim mm-hmm. jëfandikoo dane euh, àdduna daal mm-hmm. moom mi ngi fi daal moom su la bégalee tey bañ jàpp ne moom bég mi day sax dunya fa in sarrat ka yawman na innal husna aqibatu sururi bu la bégalee daal bañ jàpp ne daal mbég mi daal uh-huh, uh-huh. maanaam jeex na hmm. mu daal di ñëw ak musiba nag hmm. daal di wàcc sa kaw wafaatu sayqi ahmadu jaara amrun azimu min mulimaati duhuri ci xew-xew yi jamono yi gën a màgg ci tiis <laughs> demu borom sam gi ci la bokk ndeysaan waaye nag boo dee ba ci biir bii di ba ca kanam hmm. waman lahum waman lahumu isama allaha alayhim satul amiri loolu mooy maanaam ñun daal fan la ñuy jëlee koo xam ne bu bu yi di indeete am cong ci seen kaw. ñu ñu ñu ñu la ñu làqatu fa. maanaam hmm. borom saam rawukaay la woon. moo tax mu wax ne nag suuf si ëmb borom saam daal. Hmm. sànge na bépp suuf ci ëmb gi mu ëmb borom saam. ndeysaan bi mu koy bind moom. Hmm. bi ñu ko borom saam génn àdduna rek la war fas boo ñëwee nag ci. Cheikh Amadou Lamine Bara mi nga xam ne moom. daanaka moom. dundu borom saam lépp la résumé. ndeysaan ci taxawaay bi. Euh, tab gi hmm. maanaam ni mu ko misaale wa maa juuduhu illaa ka amtaari waa bi nga xam ne hmm. ak tabam comme hmm. taw waame nga xam ne waame moom bu ñëwee fépp lay tooyal dëgg la waaye li ci li ci daw yaram mooy bi mu ba ca mujj ga di wax ne euh, maanaam bu ya bu fekkoon yàlla daa def demande ne ah hmm. borom sama milliard dama koo soxla hmm. waaye ak njot laa soxla ndeysaan nee na euh, suñ baar nee na lu mu bëri ci lu mu doon bakkan yi nu mën a toll nu mën a toll des na ko jot te dese borom saam ngir njariñ ngir ngir ngir ngir njariñ loo seetal loolu seetal loolu nga xam ne itam boo ñëwee itam ci suñ suñ suñ Mor Touré hmm. moom itam Dame Touré suñ Dame Touré moom itam awaayam dafa am ca mujj ga da nga gis tabibul jahli wa saqami mm-hmm. Mm-hmm. daan borom saam mm-hmm. docteur la woon boo xam ne ci ñi réer wa saqami mooy ko am jàngoroy réer waaw ak jàngoroy ñàkk ak boo amee jàngoroy yaram mu faj la waaw nga xam ne wax na ci itam ne képp ku masaana jóge ba barabit ba daanu ci kaw borom saam ñaaree manam mm. naa la yeb sa borom ba nga fees dell mm. waaye laa tamit mooy yàbb la ci marchandise su dund ba nga fees dell kon loolu moo nekkoon taxawaay bi nga xam ne mm. mag ñi ko way ñëpp seeni way génnul yooyu génnul ñett yi tabak borom saam ak mat kilifaam ak nangoo jaamu yàllaam ak taxawaay ba am solo bi nga xam ne taxaw na ko ci liggéey xam yi nga xam maanaam jubluwaay bi yii rek la doon ba am na solo am na solo sëñ Assane kon daanaka daal bu ñu déggee li nga wax Mm-hmm. mën nañ koo tënk ci la Cheikh Mouhamadul Moustapha waxoon ca marsiyam ba uh-huh. jamaa al mafaqira wal ula mm-hmm. mushabba hatta shaba mm-hmm. minhu baadu suudi mafariqi la sëñ Modou Moustapha waxoon na mboolem boo dem rek dafay valable kon daanaka mboolem li mag ñi wax la Cheikh Mouhamadul Moustapha wax benn bayit Cheikh Mouhamadul Moustapha mën na koo résumer kooku mooy borom saa la fi bàyyi ko ñu di ko fàttali ko kañ mercredi ak ci nan xam naa mook tàggoo bi ñooy ànd insha allahu taala ñu ñaanal baax nag xalifaam Serigne Cheikh Ismaïla suñu borom guddal fanam te wéral ko ak ki yor kàddoom Serigne Jili moom maa koy ziar bu baax a baax Baye Jili maa koy ziar bu baax a baax solo bi moom mi ngi fi jógee 1921 nag mhm. ñu di ko fàttaliku mhm. Mbàkke gi mu ganee mhm. euh, a tolloog euh, Cheikh Mamadou Fadal moo waxoon ne borom saam mhm. day day mag te bis bu mag rek la tollool la tollool dañ koy fàttaliku ci bis boobu itam dañ ko mhm. médiatiser wut waaye bis la boo xam ne buñ buñ buñ xëyee képp ko aju ci borom saam ak daara yi mhm. dañuy xëy di jàng alxuraan ba ngoon da takk saan ndeysaan te ren jii jàng nañ fa ñetti téeméeri kaamil ak juróom ñett fukk ak ñaar yoo xam ne ci ci ci ci ci ci 382 daaka yoo xam ne yoo xam ne jàng nañ ko fa teysan bis boobu itam noonu lañ koy fàttalikoo ba ngoon mhm. ñu def waxtaanu diin daal di ñaanalante mhm. bis nga xam ne mooy fukki fan ak juróom ku ne xam ne ne weeru koor neexu la mhm. wootee ñu indi ko ci fukki fan ak juróom gi ci weeru kori weer sawaal sawaal wi bu ko defee ñu di ko ci fàttaliku ci ci berne ak ak ak ak ak ak jokku bokk ak jaxasoo ak mbiram. Mhm. su ko mhm. defee nag ci taxawaay boobu commission culturelle bi. Mhm. ci seenu taxawaay bi nga xam ne ñoom. ci njiital Serigne Makhtar ak ñi mu àndal liggéey bi ñëpp. amal nañ ci ay ay ay taxawaay. yu am solo ku ne xam na ne. waaw barki démb rek euh, lañ doon jataayu foofee ca. saamuk suñu bokk ci seen la bokk itam. di barab boo xam ne bu am solo la. Mm, taxawal ci yi borom saam góor la bokk. amoon nañ fa benn jataay doon ko ci fàttaliku. Euh, niki suba di. samedi itam. Mhm. ci ci ci ci ngoon. Mhm. niki suba. Mhm. danañ danañ danañ fàttaliku itam euh, foofu ca Njóobeen. ci benn taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la ci table ronde yoo yooyu nga xam danañ ko fa am sëñ Gana Mesra moo fay moo fay nekk ak euh, euh, Serigne Galas Jatara. buñ demee ba ca suba sa itam. ca buñ ca waajtaay wa itam. beneen ca ca ca ca ca altine ji hmm. daañu fa amal beneen taxawaay itam beneen ta tabarondu euh, ga hmm. suñ demee ba nga xam ne ca altine ca altine itam ci ngoon hmm. daañu fa beneen danañ taxawal mooy conférence société yi ku ne xam na ne bis boobu lay am ci taxawaayub euh, sëriñ Euh, ci taxawaay boo xam ne Serigne Cheikh Mbacke Niang moo koy taxawee. waaw mu Serigne Modou Mamoun Niang waaw inspecteur Serigne Cheikh Mbacke <laughs> waaw war faa taxaw te ba am solo nag muy. <laughs> Mm-hmm. Euh, maam daradu taxir namatu mm-hmm. tarbiyati jiilul mahasar fi silil xawlama mm-hmm. muy effort yi nga xam ne. warteef la ñu war koo def ngir yar gone yi. ci jamono jamonoy mondialisation ji nga xam ne am na. dana am solo dana am solo dana dana dana yitteel képp koo xam ne yarkan nga. rawatina nga yor daara. waaye tamit tax ba ci eh, nga yor kër bu nee ba ca bisu maagal ga itam ca gannaaw tàkkusaan hmm. tombeek mercredi ñu def a officielle ba dalal ji nga xam ne ñooy autorité administrative bi nga xam ne ñoo féete ci gox boobu ak ñi nguur gi yabal ñëpp hmm. ñu ñaanalante sëriñ bu ndee ba ca guddi ga nag ku ne xam na ne màggal gi bu guddi gee ci barab yu bëree bëri ci ëtti borom saam yi lañ koy woote hmm. eh, di jàng alxuraan ak di jàng xasida ni ñu ko xam am na solo am na ñëw ci Rewmi TV di ñaan ci barkeel googu nga xam ne borom saam barkeel na ko mu barkeel kër gi ak liggéey bi mu mhm. àgg fu xaw fu faaw xa njort fu ñu yaakaar rek mhm. mu paase ko di la mhm. jaajëfal bu baax a baax Cheikh Lamine itam ci taxawaay ba am solo bi nga xam ne yaa ngi koy taxaw ci diine ji ci kër gi nga xam ne itam di di joxe ay bind yoo xam ne ku ci tegtaloo rek mm-hmm. suñ borom mën na laa dimbale doo réere sa diine waaye doo réere itam magi réew mi nga xam ne seen taxawaay am na solo am na solo di sant yàlla di wax ne lu jub moom la yéenoon waaye lu ci dëng rek mm-hmm. gàtt xam-xam la ak ñàkk fasaxa la waaye ñi yebal moom matale woon nañ baarakallah mat na lool waaxi dawaana an alhamdulilah baarakallah baarakallah alhamdulilah si yasan ñoo ngi lay delloo mm-hmm. nuyoo bi ñoo ngi lay delloo ziyaara bi ñoo ngi ñaan bu baax a baax a baax sunu borom gën a ubbi sam xel waaye gën a leeral saw làmmiñ Mhm. jataay bi am na solo lool li ñu ci jublu woon it mhm. am nañ ko ci mhm. mooy mu am njariñ ndax euh, liñ fi dégg ci ay kàddu taataan ko am na solo lool ndax toujours bu ñuy fàttaliku mag ñi lan mooy njariñ li mooy joxe ay bind ndaw ñi ñu xam ne suñu mag ñi tëdd nekkuñu fi woon di tëdd di tëdd ka daa am ci luñ nekkoon ba tax yàlla may leen li mu leen may mooy tax nag fi mu ne suñ Fallou da daa wax ne doomi diw ràkkal waaw doomi diw ràkkal di way sama bàyyi moom boo xoolee fii mu ne ràkkal diw ci ràkkal la génne mhm. maanaam ràkkal moo cosaani diw mhm. te diw a ko gën a seer dëgg la diw mën naa jar ba litre mille nangam waaye ràkkal moom boo demee kilo fukk ak juróom lañ la koy jaayee mhm. kon doomi diw ràkkal diwéy sama baay moom ràkkal rek kon loolu li bëgg a jàngale mooy que kenn ku ci nekk da ngay fexe ba ku la xool xam ne kat buñ ne doomi diw la ñu ne nii rek la mën a mel ndax alwaladu sirru abiihi looloo tax ñuy jàngale mag ñi am na solo lool lii lañ leen indiloon tey ci mu doon am ci fii ci seen télé réew mi TV ngeen hmm. di ko topp it ci seen télé seen rajo réew mi FM 97.5 muy am dimanche 22h ba minuit. Hmm. seen bokk sëñ Baara Mbàkke di leen ko andil. Hmm. dimanche bu jot lépp lu ci jub yàlla la lu ci dëng matalik doomu aadama la in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Ahmad Souleymane bi sarfi al كيما تقود سمام للرسيات أدل إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجغت لي هدايا بالمبرات أمست تطيب نفسي كي أميل لها وولت ميل قلبي للهديات وخاطبتني بما يدعو لغذبتها وأزغرت صدق وعده بالرقيبات تورا تديني وتوليني دوائسها وتارة ليتهدي بالبشارات لكن علمت وإلمي سوف ينفعني بأن سات ميل في المقالات كانت موائد